ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre 2020 ginnaaw bi fanweeri simili ak ñett tegoo ci li nga xam ne moo di juróom-benn waxtu salaamaaleykum El Hadj Malick Ndiaye. waaleykum salaam Sista Maria. bi ñu la rek ci nga xam ne moo di euh, wàllum tribunal ki nga xam ne moo di euh, juge Téliko dafa nar a euh, jàkkaarloog ay ñooñam tey ay ñooñam tey loolu nag jëm ci xëccoo ak xiiroo ngaay bu dox ci digganteem ak kilifa ministre de la justice moom nag ci cour ci suba ba tey ci wàllu xibaar ñu wax tam ci wàllu mbëkk mi lu toll ci nga xam nekk nag ca waaxu ndar ya ñu ci bëri nag ay ndaw ñu waaye teg nañ loo xam ne ñoo xam dañoo fëx ba ñu gisee takk der yi ca mbuur nag police mu ngi def taxaw seetlu ci liggéey ci wàllu mbëkk mi am na nag nit ñu bëri ñoo xam ne jàpp nañ ñu ci bëri nag ñu ngi bokk ci ñi ngi ci wàllu napp gi waxtu sax

L'info, c'est ici. La revue des titres à la une des quotidiens. De ce mercredi 28 octobre 2020, bonjour à Diaratoune Mariam Ndiaye. Revue des titres que l'on euh, charge l'État. Selon lui, Macky Sall a traîné, euh, donc nos confrères nous indiquent que a traîné Macky la barre pour n'avoir pas respecté ses promesses d'emploi et avoir vendu les ressources du Sénégal aux étrangers. Et là, ce quotidien accable le chef de l'État Macky Sall concernant donc la mort des jeunes migrants en mer. Et à la une de Le Quotidien. l'immigration clandestine avec les jeunes victimes du manque d'emploi, de la malgouvernance. L'hécatombe continue dans Libération. C'est le Barça ou le Barsac qui continue. La pirogue qui s'est renversée au large de Dakar avait à son bord au moins passagers. Et de quoi nous parlent aussi de ces Sénégalais qui euh, par tous les moyens donc essaient de rallier euh, l'Europe. Des migrants fatigués échouent à Saint-Louis. Ils étaient au nombre de 200. Qu'est-ce qui barre la Sanctions contre les convoyeurs de migrants clandestins, dissonance dans l'équipe de Macky. Le gouvernement ne parle pas le même langage sur la criminalisation euh, du convoyage de migrants. Nos confrères nous indiquent après Khalifa Haro sur euh, Serigne Mbaye le Parti socialiste en état de mort clinique. français et colère des musulmans, le rapport qui a inquiété Emmanuel Macron. Et pour Chelsea euh, pour convaincre choc Juve euh, Barça sans Cristiano Ronaldo et nos confrères nous parlent aussi de ce show euh, Manchester United Leipzig. li gën a fës ci këru yéenekaay ginnaaw bi fanweeri simili juróom benn tego ci juróom benn waxtu tey ci àllarba ji ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre 2020 salaamaaleykum ajaratu Ndeye Mariam waaleykum salaam Mariam béy ci say woom suñu biir kër la ñuy tàmbalee Sud Quotidien Sud Quotidien tey jii di xëyee ci ay kàddu yoo xam ne Ousmane Sonko fësal na ko jëmale ko ci njiitu gisee nag ni bëri na ay ndaw yoo xam ne daal léegi géej gi la ñuy jël ngir war a mën a dem bitim réew ñu tuddee ko Barça wala Barsax ñu gis nag ni Ousmane Sonko moom la mu gis moom mooy daal ne Macky moom moo respecté wul ay engagement am ci dolli la mu digoon askanu réewum Sénégal ci wàllu xëy dara mu ci ñu ne déet ni waaye mu daal di jël nag lépp loo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp daal di koy jaay ñi nekk ca bitim réew. mu mel ni L'As Quotidien itam Ousmane Sonko la ñu xëyee. ay kàddoom la daal di fësee ndaxte Ousmane Sonko maa ngi koy sabat Macky Sall rawatina nag ci ndaw yi nga xam ne ña ngay faatu ci biir géej gi ndaxte ñoom fa la ñuy jaar ngir jëm ca bitim réew. lii ko Quotidien di wax lu ni mel. moom daal di gis ne ndaw yi ñoom ñàkkum xëy gi fës fii ci biir Sénégal ak tamit nañu yore réew mi te baaxul dara loolu nag moom moo gën a tax ba immigration clandestine bi daal di tar. immigration clandestine ci libération itam. moom moo tax ba mu am ay ndaw yu bëri yoo xam ne nag ñàkk nañu a bakkeen ba nee nañu sax démb am na euh, euh, nga euh, sax la mujjee dam fa li nga xam ne moom mooy ci diwaanu Ndar. Populi Vox Populi du ñu xamal nag ne ñii tey jii di jël seen gaal di ci dugal ay nit di leen yóbbu ca bitim réew ñi nekk ci biir gouvernement bi bëgg na nag ñu daal teg ay tuuma ay daan yu metti ci seen kaw wante dafa mel ni ne ñu bokk xëyee politique waaw waa parti socialiste la ñu xëyee tey jii ndaxte ginnaaw kii di Khalifa Sall dafa mel ni nag ne kii di Serigne Mbaye Thiam moom it yëkkati na ay kàddoom jëmale ko nag ci wàllu parti bi di parti diine l'islam am na ab rapport boo xam ne daal moom moo ko daal di tax mu yëkkati kàddu yu ni mel rapport boo xam ne lañ cay firndeel daal daf ko tiital ba mu mujjee yëkkati kàddu yu ni mel. ba xam. stade yéen ba ma ngay wéyal nag consultation yi nga xam ne moom koy amal ci ñiy bokk ci biir CNG ginnaaw ba mu dalalee kii di Mouhamed Ndaw Tyson dalal na Gaston Pape Abdou Fall Pape Djibril professeur Djibril Seck Hadim euh, Gadiaga. est-ce que mënta woo El Hadj Malick Ndiaye. ah ci la bokk du ko recevoir ah, ci la bokk de moo ah, Pape Dieng ci lañ bokk daal doy na waar. ayca Adjaratou Ndeye Marieme Ndiaye fii léegi ci kanam incha ñu daal di rek euh, dalalaat la ci li nga xam ne fekk nga gën a yëri yéene kaay. ba si kanam incha allah aywa. Sud FM en mode majeur. Sud FM en mode majeur. Les temps changent et le monde bouge. Sud FM l'on parle de cette campagne agricole et de commercialisation, un sujet débattu aussi lors de la rencontre trimestrielle entre le directeur national de la BCEAO pour le Sénégal et l'association des professionnels de banques et établissements financiers. Les détails, c'est avec Habsaïli Malouane dans le journal de l'Écho.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 ont échangé sur la nécessité d'un financement accru à l'agriculture sous forme de prêts syndiqués, sachant qu'il y a des dispositifs sécurisés, renforcés qui se mettent en place sur toutes les filières, que ce soit les filières, on va dire, émergentes de l'anarcarde au sud, que ce soit le riz au nord, puisqu'il faut l'autosuffisance en riz, que ce soit le coton et que ce soit aussi l'arachide. Et sur les arachides, Il est évident que la bonne campagne hivernale de cette année se transformera certainement par une production record d'arachides pour lesquelles le Conseil national du crédit qui s'est réuni la semaine dernière a émis de fortes recommandations pour que la campagne puisse ouvrir très tôt, que les prix aux producteurs puissent être fixés, que les moyens financiers de la SONACOS puissent lui permettre de collecter les graines, mais surtout aussi que cette problématique entre consommation locale pour les huileries et exportation en l'état des graines d'arachide, notamment par euh, les Chinois, que cette problématique puisse également être prise en charge par l'État.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 Journal de l'économie présenté par Habsa Elimanouane. Merci à vous. Et tout de suite, Marie-Rose Ndiaye qui nous parle de l'hôpital d'enfants Albert Royer qui euh, reprend les consultations avec la baisse de la propagation du coronavirus à Dakar. L'hôpital reçoit ces dernières semaines environ 300 personnes par jour et les 40 euh, contre les 40 le mois dernier en raison de la pandémie. Les précisions avec Marie-Rose Ndiaye. C'est dans le journal de la santé.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 Bonjour à tous. À l'hôpital d'enfants Albert Royer, la fréquentation des services a repris normalement ces dernières semaines. Avec la baisse de la propagation du Covid-19, les consultations sont passées de 40 à 300 par jour, se félicite le point focal Covid de l'hôpital, le professeur Idrissa Dembaba, pneumopédiatre avec Rapsa Elimanouane. Actuellement, a vu depuis que le déconfinement est total, les gens ont recommencé à faut pas que les gens aient peur de venir à l'hôpital. L'hôpital d'enfants Albert c'est le plus grand hôpital euh, qui est dédié spécifiquement aux enfants, mais également c'est une structure de référence qui soigne d'autres maladies. Et c'est un hôpital euh, qui n'est pas qui n'est pas destiné aux, aux, patients Covid, mais quand nous avons mis en place un dispositif très sécuritaire et très rassurant pour que les gens quand ils viennent, ils peuvent laver les mains, euh, un masque, ils peuvent être soignés dans des Je pense que toutes les activités, en tout cas, se sont normalisées. La fréquentation de l'hôpital a beaucoup augmenté. Et bien que nos hospitalisations n'avaient pas diminué, c'est juste les consultations qui avaient beaucoup baissé. C'est autour de 30-40 pour un qui recevait jusqu'à 250 voire 300 enfants. La semaine passée, nous sommes autour de 300. Il est important que les parents viennent faire consulter. Il est important que les parents n'aient pas peur de venir au niveau des hôpitaux. Et enfin, il est important que les enfants soient bien vaccinés, il est important que les enfants reviennent, re, euh, retrouvent une vie normale, c'est-à-dire une scolarité qui est normale. Des maladies à potentiel épidémique ont fait leur apparition dans le pays. Il a été noté des cas de dengue et à Kaffrine, un cas de fièvre jaune à Touba, un cas de fièvre hémorragique Crimée-Congo, un cas de fièvre de la vallée du Rift à et une circulation dans le monde animal de fièvre de la vallée du Rift Saint-Louis. À cet effet, le ministère de la Santé a demandé un renforcement de la surveillance à tous les niveaux de la pyramide sanitaire des stratégies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 La ronde des infos sur Sud FM Sen Radio, première édition de ce bloc d'information. Bonjour Babacar Sam. Bonjour Maria, bonjour à toutes et à tous. Et on parle le président de l'UMS euh, auditionné ce matin. Bras de fer entre le juge Téliko et le ministre de la Justice, le président de l'UMS face au rapporteur de la Cour suprême ce mercredi. Immigration clandestine dans cette édition d'information du pirogue avec à son bord 200 personnes interceptées euh, mardi au large de Saint-Louis. La majorité des passagers ont euh, pris la fuite. Huit candidats à l'immigration arrêtés actuellement à la brigade de gendarmerie de Saint-Louis. Au même moment, la police de Mbour fait de ses une semaine, une trentaine d'individus ont été interpellés parmi les prévenus des professionnels de la pêche. Le ministre de l'Intérieur réagit et rappelle les sanctions prévues par la loi. Les convoyeurs encourent des peines de 10 ans de prison selon Ali Ngouille Ndiaye. Candidature, euh, caricature euh, du prophète Mohamed, vague de réprobation après la sortie euh, maladroite du président français Emmanuel Macron. L'ASCAI réagit, condamne et appelle au boycott des produits français. Puis sur l'international en Tanzanie, euh, les élections générales s'ouvrent dans un climat tendu. Tel est le sommaire de cette édition qui sera développée par vous, Babacar Samb. qui vous dit euh, bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec ce bras de fer entre le juge Souleymane Teliko et le ministre de la Justice. Le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko, sera auditionné ce mercredi par le rapporteur désigné euh, par la Cour suprême, l'origine donc du différend entre euh, le patron de l'UMS et la chancellerie euh, avec Birama Ndiaye. Le président de l'Union des magistrats du Sénégal est attendu ce mercredi à la Cour suprême de Dakar. Souleymane Teliko doit en effet faire face au rapporteur qui a été désigné pour l'entendre dans le cadre des poursuites engagées contre lui par le ministre de la Justice. À la fin de l'audition, le procureur général de la Cour d'appel de Ziguinchor va dresser son rapport dans lequel il va dire s'il estime que des poursuites soient engagées ou non devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Pour rappel, Souleymane Teliko avait rappelé dans une émission ce qu'avait déclaré la Cour de justice de la CEDEAO, que la présomption d'innocence de l'ancien maire de Dakar et le droit de sa défense avaient été violés par la justice sénégalaise. Depuis lors, un bras de fer entre le patron de l'UMS et la chancellerie est enclenché. En fait, le ministère de la Justice a informé par un communiqué de presse diffusé le 28 septembre 2020 que le garde des Sceaux a saisi la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature à la suite du rapport de ligage concernant le président de l'Union des magistrats sénégalais, Souleymane Teliko. L'inspection générale de l'administration de la justice aurait retenu, entre autres arguments, l'article 14 de la loi 2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats. un argument qui interpelle certains magistrats. L'autre argument invoqué par l'IGAZ, c'est la violation de son serment prévu par l'article 9 du statut. Je le cite, « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune à titre privé sur questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité que ces fonctions imposent. Fin de citation. Dans cette bataille, six organisations de la société civile et de défense des droits humains et autres ont exprimé leur soutien au président de l'Union des magistrats du Sénégal, une attitude inhabituelle dans la cour qui a poussé le très taiseux et émérite magistrat Cheikh Tidiane Koulibaly, premier président de la Cour suprême, à faire une sortie publique pour rappeler les principes aux uns et aux autres. Quoique rassurante, cette sortie du premier président est loin de mettre un terme au bras de fer entre la chancellerie et le syndicat des magistrats. Souleymane Teliko, donc euh, face au rapporteur euh, de la Cour suprême ce euh, matin. Émigration clandestine, une pirogue avec à bord 200 euh, personnes interceptées hier mardi au large de Saint-Louis. Euh, selon le communiqué de la gendarmerie, la pirogue avait quitté Mbour le 18 octobre dernier. Les responsables avaient perdu le cap devant les mener les îles Canaries. Finalement, ils ont décidé d'accoster au large La majorité des passagers ont pris la fuite. Huit candidats à la Saint-Louis pour les besoins de l'enquête. Deux moteurs ont été également euh, saisis. La police de Mbour traque les euh, donc euh, de migrants en une semaine. Plus d'une trentaine d'individus âgés entre 17 et 59 ans, et trois personnes de nationalité étrangère, ont été interpellées puis euh, déférées au parquet. Parmi les prévenus, on dénombre de professionnels de la le cadre d'une opération de dissuasion des départs sur les plages centrale de Mbour Moustapha Sall. Une trentaine de candidats à l'immigration clandestine et convoyeurs interpellés en une semaine par la police de Mbour. Ils ont été tous déférés au parquet du tribunal de grande instance de la localité. L'âge des personnes arrêtées varie entre et ans. Dans de volontaires à la recherche d'une vie meilleure en Europe, on dénombre deux mineurs, deux femmes et trois individus de nationalité étrangère, des Gambiens parmi eux, un mineur qui fête ses 17 sur la liste. L'un habite à Sali Portudal, l'autre vient de Dakar au quartier Diamagun. Parmi les prévenus, on note la présence d'une dizaine de professionnels de pêche qui tentaient de prendre la Méditerranée par le biais des pirogues de fortune. Devant le procureur, ils sont poursuivis pour les motifs suivants participation à l'immigration clandestine, trafic de migrants, infraction à la législation des titres de séjour et établissement d'étrangers. L'enquête des Limiers a révélé leur guide entre 240 et 350 000 pour rallier l'Europe. Il faut aussi signaler que ces éléments à la recherche de l'Eldorado ont tous été interceptés en instance de départ en direction de l'Europe dans les quartiers de Golfe et de Tefes. Ceci entre dans le cadre d'une opération de veille et de surveillance pour dissuader les départs sur les plages de la Petite Côte. Avec ces patrouilles effectuées par les flics dans les points stratégiques depuis la recrudescence de l'immigration de Mour passeurs, convoyeurs et candidats à l'immigration clandestine. À ce jour, hormis la trentaine d'individus déférés au parquet, cinq autres accroupissent derrière les grilles de la police. En attendant, L'enquête suit son cours. Moustapha Sall Mbour pour la radio Sud FM. Moustapha Sall est convoyeur en cours des peines de 10 ans de prison et une amende pécuniaire selon la loi de 2005 sur la traite des enfants, l'annoncé du ministère de l'Intérieur qui estime que les opérations de sécurisation de ratissage ont permis de mettre la main sur 28 personnes présumées convoyeurs euh, sur 28 présumés convoyeurs à Linguindiaï euh, que nous écoutons.

euh, considérés des présumés convoyeurs qui sont entre les mains de la justice. Et très certainement, la, la justice fera son travail et que ces gens seront condamnés parce qu'ils participent aujourd'hui à, disons, l'émigration clandestine par voie maritime de, de, ces jeunes. Et malheureusement, comme, comme on le sait, euh, c'est pas trop évident. On, on, a même des difficultés pour avoir les statistiques. Il y a certainement des, morts. Nous, savons qu'il y a même des, morts de l'autre côté. nous pensons qu'avec les dispositions qu'on est en train de prendre la, la surveillance et d'une part, euh, donc renforcer la soirée et d'autre part, leur donner des opportunités, ce phénomène devrait être régulé. Ah non, les convoyeurs, si vous regardez la loi de 2005 sur la traite euh, des, enfants, ils encourent des peines jusqu'à même 10 ans de prison, euh, sans compter les, les, les, les sanctions pécuniaires. Certainement non, parce que je sais le dispositif sécuritaire, c'est un dispositif qui qui fonctionne très bien. D'ailleurs, nous avons pu euh, empêcher le, le départ de, de, plusieurs jeunes. En fait, ici, on voit que peut-être c'est cas, mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont même pas eu l'occasion de prendre, euh, de prendre la mer. Euh, parce que c'est tout un ensemble, c'est tout un ensemble et puis à chaque fois les, les gens s'y vont avec d'autres artifices qu'on parvient à, à, à déjouer. C'est ce qui montre que c'est de vrais trafiquants également qui sont, qui sont derrière. Euh, nous avions connu à un moment donné une accalmie pendant un certain temps, quand le dispositif était très fort, n'utilisez plus les, côtes sénégalaises, mais prenez la route. Maintenant, avec les différentes restrictions qu'il y a dans le déplacement avec les fermetures des frontières, ces déplacements ne sont plus possibles. C'est pourquoi ils ont repris. Mais je pense qu'avec les nouvelles dispositions qu'on a prises euh, depuis euh, dans les jours à En tout cas, le leader du parti Pastef Ousmane Sonko donc euh, accuse euh, le président Macky Sall d'être le principal responsable de la recrudescence de l'immigration clandestine et pointe le fort taux de chômage selon Ousmane Sonko. Ce phénomène traduit un échec cuisant de l'actuel régime. Euh, je cite, hein, on, euh, on ne peut pas euh, gouverner dans le mensonge et la tromperie. Les Sénégalais euh, vivent aujourd'hui les réalités de la mauvaise gouvernance de, du président Macky Macky Sall. Il avait euh, promis en une fois élu, de créer 100 à 150 000 euh, emplois chaque année, ce qui fait 500 à 750 000 emplois au bout de 5 ans. Et, je pense que si ces 750 euh, 000 euh, emplois avaient été créés, les jeunes n'allaient pas prendre les pirogues pour partir en Europe, estime Ousmane Sonko. Et puis, la directrice générale de l'Agence nationale Aquacole invite les jeunes qui prennent les Pirogue à s'intéresser à la pisciculture, l'une des activités agricoles les plus rentables. Euh, Tening Sen une tournée au niveau de la commune de Toubacouta dans le cadre de la relance des activités de l'ANA. Fatick Ngossar. La directrice générale de l'Agence nationale aquacole a visité plusieurs sites au niveau de la commune de Toubacouta dans le cadre de la relance des activités de l'ANA. Elle a participé à l'empoisonnement de 10 cages flottant au niveau de la vallée Senghor à Sinthioubeira avec 10 000 alevins. Une activité génératrice de revenus pour les populations. Teneng Sène, directrice générale de l'ANA. Nous avons aujourd'hui procédé à l'empoisonnement des 10 cages qui ont été financées dans le cadre du PUMA. Avec 10 000 alevins, avec aussi de l'aliment qu'on a amené sur les 20 et nos agents vont continuer l'empoisonnement des cages restantes. 1000 par cage. Chaque

les pirogues à s'intéresser à la pisciculture, l'une des activités agricoles les plus rentables. Pour les jeunes qui prennent les pirogues en prenant tous les risques, la a un budget de 1 milliard 200 pour financer des projets de jeunes dans la pisciculture. Et je pense que les jeunes qui sont aujourd'hui les plus vus dans l'immigration, sont les jeunes qui sont au niveau des côtes, c'est-à-dire des jeunes de Saint-Louis et Je pense que pour saint louis et sa délégation ont bouclé la tournée à Nemaba par une visite du parc d'ostréiculture du groupement des femmes. Elle a été accompagnée par les autorités administratives et locales. Ngor Sar Fatick, FM. Gorsar et puis la Russie, pisciculture, euh, culture de riz et élevage de poissons dans un le projet mis en branle dans zone de Niaguis. 75 hectares ont été effectués pour dérouler cette rizipisciculture. Euh, une réponse à l'immigration clandestine et pour l'autosuffisance alimentaire. Ignace euh, de la caricature du À euh, Saint-Louis, les responsables de l'ASCA, Association de soutien et de coordination des activités islamiques, euh, condamnent les propos du président français sur euh, l'islam et son prophète. Il invite les chefs d'États africains à se solidariser avec la communauté islamique pour boycotter politiquement, socialement et culturellement la France. Le président de l'ASCAI s'est aussi prononcé sur la question de l'immigration clandestine. Vous l'entendrez dans notre prochaine édition et puis sur en Tanzanie près de 9 29 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi pour les élections euh, de 7h à 16h les sont rivés en tout cas vers la présidentielle où 15 euh, candidats se disputent la de l'État John Magufuli euh, élu en 2015 et candidat

l'inséparable de l'info. Sud FM en mode majeur, les temps changent et le monde bouge. Sud FM. Les temps avec. Sud scène Radio, l'inséparable de l'info. Sud il est 7 heures. juróom-ñaari waxtu ci Sud FM seen rajo amal mbégte àndandoo ak yéen ci yéen ñi nga xam ne da ngeen a saxoo di wétalikoo Sud FM seen rajo 98.5 euh, bu njëkk bi ci wàllu olof ci yaatal salaamaaleykum El Hadj Malick Ndiaye. waaleykum salaam euh, tey la nga koy déglu loolu nag ci cour suprême lay doon ci ñàkk ci am ci réeróo gi am ci digganteem ministre bi ñu dénk wàllu euh, yoon lay doon ba tey ci wàllu xibaar yi ñu fas fàcce bokk na ci nag mbëkk mi Barcelone

El Hadj Malick Ndiaye waxee woon ci xibaar ak tamit lu jëm ci mbirum Souleymane Téliko jiite Union des magistrats du Sénégal tey jii nag lañ koy déglu ca Cour suprême rapporteur bi nag lépp mu ngi jëm ci réeroo gi am ci digganteem ak kilifaam yi dañ ci di Birama Ndiaye ci fàttali. président union des magistrats du Sénégal ñoo ngi koy xaarandi niki àllarba gi ci cour suprême bu ndakaaru Souleymane Teliko war na janoog rapporteur bi nga xamante ne moom moo ko war a déglu ci li nga xamante ne moom la jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub yoon di ko toppee ci njeexitalu jano boobee nag procureur général bu Cour d'appel bu Ziguinchor dina def ab rapport ci rapport boobee sax muy xool ndax jar nañu daal di ko topp am déet ci kanamu formation disciplinaire bu conseil supérieur de la magistrature ñu fàttali leen ne Souleymane Teliko dafa fàttali woon rek ci benn émission la nga xamante ne moom la cour de justice de la CEDEAO waxoon ne présomption d'innocence bu ancien maire bu Ndakaaru ak ay àqab ak yelleefam lii la di justice bu réewum Sénégal da ko daal di salfaañi ca boobu ba négési nag jàppante gu tar dox diggante njiital UMS ak yëtt ki nga xamante ne moom mooy jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu yoon ci mim réew firnde la mooy niki ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sattumbar gi ñu génn jaarale ko ci communiqué la garde de sceaux daal di xamle ne daal dina saisir lii la di formation disciplinaire bu conseil supérieur de la magistrature ginnaaw bu mu sukkandiko ci rapport bu IGAS nga xamante ne da ko jagleel président union des magistrats bu Sénégal inspection générale de l' administration de la justice nag moo ngi sukkandikoo ci yeneen argument bokk na ci article 14 bu loi 2007 bi nga xamante ne niki 17 janvier ko ko daal di voté te muy addu ci statut magistrat yi beneen argument bi nga xamante ni IGAS daal di na ko fësal bokk na ci violation serment maanaam ñàkk a sàmmoonteeg waat gi nga xamante ne wat nañ ko biñ leen di tabb ma tuddal leen ko maa ngi waat ne dinaa doxal sama liggéeyu magistrat nu mu waree. te duma ci am xaj ak seen ci fonk constitution bu réewum Sénégal ak loi yi nga xamante ne moom la daal di tëral bépp secret bi nga xamante ne daal dina fa ruuse ma deewaaleeg moom ak luy génnee ci tribunal yi ak la nga xamante ne dañ koo wat te duma jël benn position duma joxe itam benn consultation ci ruq wala boog ci fi nga xamante ne moom moo jëm ci compétence juridiction yi te itam ànd ak tey ak dal maandu jàpp sama njàmbur ci lépp la nga xamante ne moom la fonction yooyu daal di santaane ci xeex boobee nag juróom-benn kuréel yu yëngu ci wàllu société civile ak xeex ngir nit daal di am ak ak yeleefam ak yeneen organisation daal di nañ jàppal tànk kii la di président bu union de magistrats du Sénégal. pëccëxoo googe nag daal di tàbbi ci biiru justice bi tax na ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Tidiane li nekk premier président bu cour suprême daal di génn ñëpp dégg ko ak it muy dànkaafu ñaari boor yëpp donte ne sax génn boobee daal di na xel wante taxut jàppante bi dox diggante chancellerie bi ak syndicat de magistrats yi moo ngi wéy. Birama Ndiaye ba tey ci wàllu xibaar la ñuy des wax ci wàllu mbënn euh, mbëkk mi ak tamit ab gaal goo xam ne dafa yeboon nag ñaar téeméer nit dafa dañ ko jàpp démb nag ca waaxu ndar ya ñu jàpp ne communication de di xam ne nag loolu yeboon na ñaar téeméer nit ñu ci bëri nag woon juróom-ñetti fan fukki fan ba xam lu ñu génn responsable sax ñoom nag teg nañ ko loxo am na ñoo daw dem ñu jàpp ne nag loolu mu ngi am foofu nag ca diwaanu euh, ndar démb lañu def ba tey ci wàllu mbëkk mi ak tamit police mbuur bi nga xam ne nag mu ngi euh, jaam xeex bu baax a baax ñi nga xam ne yóbbu nit ñu dem jaar ci ndox mi ay bés nag jàpp nañu toll ci rek fanweer nit lu toll ci rek maanaam am nag fukki at ak juróom ñaar jàpp juróom fukki at ak juróom ñeent lañu am bokk na ci nag ñaari jigéen ak tamit ñetti nit ñoo xam ne kat dëkkuñ fii ci biir Sénégal bokk na ci nag prévenu yooyu bokk na ci ñu bari nag ñoo xam ne ci wàllu napp gi lañu yëngatu ci opération de dissuasion bi xam ne mënu ko ci plage Mbour dañ ci ànd ak kii di lu toll ci fanweeri doomu yu nga xamante ni dañoo naroon a jël gaal gi ngir mbëkk yi daal di dem ci réewum tugal jàpp nañu leen fii ci mbuur ci lu matul ay bis ñoom ñëpp ñu daal di leen di jébbal procureur bu tribunal bu grande instance bu diwaan gi ñoom ñi nga xamante ni jàpp nañ leen boo dee xayma seeni at ki ci gën a nekk xale fukki at ak juróom-ñaar la am ki ci gën a nekk mag moom ma nga jàpp daanaka juróom-benn fukk yu manqué benn ci ñoom ñooñu sax nga xamante ne fi ñu toll nii rek dem Europe rek la ñu bëgg ngir am ëllëg gu ñoŋ wàññi nañ ci ñoom ñaari mineur ñaar ci ay jigéen ak ñett ñu nga xamante ni ñoom dëkkuñu fi ña nga bawoo ca bitim réew kenn ki sax gone la am na ñaar ñu nga xamante ni ay élève lañu kenn ki mu ngi dëkk Saly Portudal ki ci des mi ngi bàyyi ko jàmm gën nekk ca Ndakaaru ñi nga xamante ni nag jàpp nañu leen am na ci ñoo xamante ni tamit ay nappkat lañu war nañoo mat fukk yu nga xamante ni ñoom daal gaal yi la ñu bëggoon a jël dem tugal la ñoom ñëpp nag jébbal nañ leen ki nga xamante ni mooy procureur lim leen toppe nag bokk na ca maanaam immigration clandestine tukki ca amuloo kayit ñeneen ñuy topp leen transporté maanaam yóbbu ay nit ñi ci des nag dugg ci miim réew te amoo benn kayit enquête bi tamit daal di wane ni ñii nga xamante ne ñoom ñëpp dañoo bëgg a tukki dañoo joxe xaalis xaalis ba nag buñ koy nattable toll na ci ñeent fukki junneeg juróom ba ci juróom-ñaar fukki junni yu nga xamante ne ñoom daal génne nañ ko ci koppar ngir dem tugal ñu daal di fàttali ne tamit ñii ñoom ñëpp ñu ngi leen di jàppe ci quartier yu mel ne golf ak tefes ñuy waaj jël li nga xamante ni mooy yoonu mbëkk mi lee lii nag police da koo taxawal rek ci opération yu nga xamante ne ñoom nag la ñu bëgg mooy kenn bañ a jëlatee gaal gi fii nga xamante ni mooy diwaanu Mbuur policiers yi nag fi ñu toll nii toppee nañ mbooro bu baax a baax nga xamante ne ñoom ñooy jël gaal yi wala ñiy yóbbu kon ñi bëgg a dem ci réewu tugal ci bisub tey lu weesu fanweer yi nga xamante ni jot nañ leen a débbal procureur juróom yu bees fi ñu toll nii ñi ngi ci gannaaw grille yu police ngir xaar enquête bi daal di jeex Moustapha Sall Mbour Sud FM Moustapha koo xam ne dafa yóbbu nit nag boo def nag lañu daan fukki at atu kaso loolu nag ak alamaan bu takku loolu moo ko ni ko loi 2005 waxee sur la traite des personnes kàddu yooyu ko ko rotal moo nekk ministre bi yi nga xam ne mooy tax ñuy jàpp def ko ñaawteef yooyu Aly Ngouille ñu déglu ko mu ci ay leeral waaw loolu mënu waaye fi fi mu tël ni tembe moom am na ci wax dëgg yàlla la loi de 2005 bi nga xam ne bii mooy mooy wax ban daan la ñuy daan koo xam ne kii dañ koo jàpp ci muy def trafic trafic bii ci la bokk muy nit ñuy jaar fii ak nit ñu fii ñëw nit ñoo xam ne fii la ñu jógee di dem bu fekkee na nga bokk ci organisation bi am na sa peine yu am solo yoo xam ni mi ngi ci néega ni am na lu mat ñaar fukki nit ak juróom-ñett yoo xam ne jàpp na ne ñi ngi woon ci loolu donc ñu ngi ci loxoy yoon te gëm naa ne yoon bu appliqué li nga xam ne lii moom la moom la loi bi tëral danañ danañ ma dal seen kaw sanction yu am solo la dem na ci sanction boo xam ne bii mën a dem tëdd sax ba foog naa ne fukki at ci kaso ak ay amende yoo xam ne ci wàllu xaalis bi mën nga ko fay donc loolu déjà existé na c'est vrai que mën nañ ko criminaliser mais fi nekk pour l'instant euh, ndaw yi nga xam moom la ñuy yóbbu ñoom dañ leen jàpp ne ay victimes parce que kuy subir traite moom victime rek nga mën a ne ñi nga xam ni ne ñooy def traite bi moom yoon da mën a dal seen kaw bu baax a baax. noonu ànduñu ci c'est vrai que dispositif sécuritaire bi mu ngi fi woon. Euh, parce que bu ngeen seetloo Sénégal toll na période xam ne kenn déggatul sax kenn kuy dem. kenn toogatul déggatul kenn kuy dem ba ba peut-être depuis de mois de septembre affaire bi commencé jóg. tàkkarnaase déjà ci depuis le 7 octobre am na ci ay gaal yu doon dem gaal yi nag. Euh, ñi ngi gis également ni ñuy doxalee des fois yombu la yombu la euh, surveiller ndax ñaar du ñu départ ci tefes ñoom ñëpp yëpp nit ñuy dem li ñu gis ne moom la ñuy def mooy dañuy gaal gi day dem ba ci biir géej mu taxaw fa di xaar ay gaal yu ndaw yoo xam ne dañuy mel ni ay nappkat lañ jël di yóbbu di yóbbu nit ñi donc loolu moo moo waral euh, peut-être na euh, au départ doo soupçonné que ne lii moo ci def waaye loolu mooy li nga xam ne lii peut-être mooy li ñu gis mais bari na yoo xam ne peut-être téye nañ leen sax avant ñuy dem ndax li ñu leen téye avant ñuy dem mooy nit ñi am nañ renseignement bi que ne ñi ngi préparé lii fekk soit fa ñuy réunion nga arrêté leen wala nga tas leen jàpp nga xam ne ñoo ci nekk boo boobaa ñooñu dañuy recommencer war rek donc loolu am na ci lu am solo yoo xam ne ñi ngi koy def ñun Euh, ci Sénégal diggante marine euh, police ak gendarmerie ak ministère de la pêche même muy liggéey bu am solo boo xam ne bii en tout cas bi nga xamee ne bii peut-être mbir mi gën naa jóg jël nañ ci également yeneen mesures pour gën a renforcer sécurité bi. directeur général bu agence nationale euh, euh, aquacole bëgg na nag ndaw yi bàyyi xel bañ a dem fële ci mbëkk mi waaye itam toog fii Sénégal ndax lu la mën la cee fekk rawatina nag yëngu ci wàllu pisciculture activité boo xam ne kat mën nga cee gis sa bopp teral ci say waajur dañ caa dëkk di Ngor Sarr. directrice générale agence nationale bu aquacole day tàmbaliwaat na liggéey ba wër itam béréb yu bëri ci commune bu Toubacouta fekke na itam jenn yu ndaw yi ñu doon dugal ci cage yi nekk ci dex bi ñuy wax Senghor te mu nekk Sinthiou Bera lu tollu jenn muy liggéey boo xamante ne dina indi koom loolu askan ba fa nekk Teneng Sène moom mooy directeur général bu ANA. tey dañ fi ñëwoon pour jiw jën yu ndaw ci cage yi nga xam ne moom la def fii pour yarum jën bi nga xam ne moom la ñu jagleel euh, Sinthiou Bella ñu ngi fi defar 20 euh, cage bu ci ne dinañ ci def junni jën yu ndaw nga xam ne au bout de 6 mois site bi mën na récolter 6 à à 8 tonnes buñ ko jaayee parce que tilapia bi tam ñu ngi koy jaayee entre 1500 ba jëm kaw. ay loolu chiffre d'affaires bu bu bu war a intéressant la ci ñoom. lancé na liggéey bi ñu jagleel écloserie bi nga xamante ne mu ngi war a jar fanweeri million ak juróom-ñeent si ñu koppar te ñu def ko ba léegi ci dëkk boobu ñuy wax Sinthiou Cubeera pour bu sotee rek ñu mën fa di jële ay jën yu ndaw di leen dugal ci cage flottant yu nekk ci dex ba ñu mel directrice générale bu ANA sant ndaw yi nga xam ne dañuy jël gaal di dem Barça wala Barsaq ñu dugal seen loxo ci yarum jën ndax bokk na ci liy gën a indi koom ci réew mi. Barsaq Barça moom mënoon nañu ak Sénégal bu ñu ñëwee si yarum jën DER mu ngi am budget boo xam ne mu ngi toll ci un milliard ak lu ko ëpp pour financer yarum jën di wax rek jeunes yi di dem Barsaq Barça nga xam ne ñu ci bëri ci dëkku géej la ñu jóge muy waa waa Saint-Louis bëri nañ ci waa mbuur bëri nañ ci nga xam ne ñooñu affaire napp la ñu xam mën nañu jublu léegi ci yarum jën jën parce que mën nañu yar jën am ci koom-koom bu baax a baax am ci xaalis bu bari donc vraiment mën a moytuwaale dugg ci géej gi ak risque yi ci nekk yëpp. Tening Sène ak délégation bu mu ñu àndal itam ñu ngi jaaxale seen tournée ci visite bi ñu jagle jagleeloon parc horticulture bu jigéen ñi nag Nema Ba moom. autorité administrative yi ak autorité locale yi ñoo ko gunge woon ci visite bi mu doon def ci biir Toubacouta Ngor Sarr Fatick Sud FM. Ngor Sarr euh, riziculture di mbayum ceeb ak tamit euh, jën ci benn bassin loolu nag mooy projet bi nga xam ne dañ ko taxawal fële ca Nagis Nagis 75 hectares la ñu affecté nag ngir rek loolu yëpp mën a antu loolu nag ngir tontu li nga xam ne kat moom moo jëm ci wàllu immigration clandestine waaye tamit euh, am bay dundee dañ ci ànd kii ci jamono bi ñuy wax wàllu immigration clandestine Barça wala bokk Barsaak ay bassin piscirisicole yi nag nekk na li nga xamante ni mun naa fixé ndaw yi ci seen zone rawatina ci zone Niaguis lu toll ci soixante-quinze hectares wàllu suuf ci booru géej gi la commune Niaguis daal di jagleel li nga xamante ni ñoo nekk ca boor yooyu di ay population yi nga xamante ni ci étang rizipiscicole yi mun nañoo béy ceeb di napp tamit jën en même temps benn njaboot benn étang rizipiscicole li ni mel la ñi di yëngu ci wàllu renard de fas yéene amal ci zone yi ni mel kii di seen coordonnateur coordonnateur Eut Diatta di expliquer. parce que fii da ngay mën a am jën am ceeb aussi. da ngay baare euh, l'avance xorom bi waaw te aussi dina fixer xale yi ak population bi si bi ñu am au moins njëriñ waaw pour man mi c'est la solution la meilleure que pour suñu xale yi nekk fii solution bi moo nekk fii du fal du dem bu ñuy nangoo liggéey lépp mi ngi fii waaw parce que bi ñu commencé woon fii nga xool fële kenn du yaakaar ne lii dinañ ko am. ay bassin rizipiscole yi nga xamante ni dina tax ñu daal di arrêté lii di xorom bi ci boor yooyu waaye tamit nekk na réponse pour wàllu autosuffisance alimentaire li ni mel kii di sous-préfet bu Niaguis Richard xam fay moo ko xam xamle. loolu moo xam mu nekk loo xam ne solution bu baax la parce que loolu mooy ne day permettre nit ki mu am lu muy dundee. parce que dèjà ci état bi rek boo ci génne ceeb génne ci jën génne ci crevette dèjà sa añ assuré na bu lii bu ñu koy yaatalee ci yeneen dëkk yi vraiment lii président la dañuy woo ci naan euh, sécurité alimentaire mooy bay li ñuy lekk ak di lekk li ñuy bay fii mooy lii. di ay étangs rizipiscicoles yu ñu taxawal ca booru dex ga eh, ca Fanda yi nga xamante ni nag ca weer yi ñuy dëkkmal dinañu am lu toll ci benn tonne wàllu eh, jën yi nga xamante ni dañ ko récolter foofu expérience bi nga xamante kilifa yi bëgg nañ ko lawal ci gox-goxaan yi nekk fii ci diwaanu eh, Ziguinchor di projet bi nga xamante ni tamit mu ngi jànkoonteel ay jafe-jafe te lu ci ëpp muy ñàkkum jumtukaay yi. Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM Ignace Ndeye ñu dem ca Ndar tamit kàddu yi nga xam ne ñu ko yëkkati ay di njàmbat askaay moom l'association de soutien de coordination des activités islamiques mu a nga xam ne nag président bu France di waaye itam li ñuy mujje nag nga xam ni mooy li nga xamee ni moo metti xolu musulman yi ci àdduna yépp métti bi mooy lan xam nga fekkoo noonu ordinaire benn waaye buy dox ci mbedd mi rek moo wax duñu metti waaye lu toll na France lii du ñu jaaxal ci France nag ndax ñoom ay colonisateur lañu ñoo colonisé woon Afrique rey suñu ay maam kon France ñun dañuy maslaa waaye duñ la fàtte waaye nag Macron dafa jaawale ndax amul expérience ndax moom dafa accuser l'islam l'islam amul benn rapport ak terrorisme buy accuser na accuser personne boobu suñu chef d'état yi nañu jëkk def solidarité ak population islamique nañu wax Macron ni ko tooñ nga ba pare ñu ngi demandé itam musulman yi nekk ci àdduna bi képp koo xam ni musulman nga nanga nga fexe ba lépp lu France génne bul ko jënd ñaareel ba nañ ko xeex socialement nañ ko xeex politiquement Sénégal yu bare ñu nga France am ay nationalité bu voté jotee bu ñu voté Macron loolu ci politiquement la bokk ñu wax euh, ci wàllu tàggat yaram ci tënk rek ak tamit li nga xam ne rek mooy point de presse bi nga xam te ne nag donc dina ko def di génne bi nag ñu war a tànn ci afro basket moom nag euh, fan yi la jógee fële ci Amérique moom Boniface donc moom mooy tàggat équipe bu góor ñi war a def nag plan programme jébal ko Moustapha Gueye di directeur technique national bi ba tey ci wax lu tàggat yaram jeexal lu jëm ci deuxième journée bi match yi dañu la tëddee Fenerbahçe di daje équipe bii di Dynamo Juventus daje ak FC Barcelone mu war a nekk retrouvaille diggante Messi ak kii di euh, Cristiano Ronaldo Béchaktir bu Demba bi nga xam ne moo nekk Paris Saint-Germain euh, Manchester United daje ak bi de Leipzig démb nag ni résultat yi ci groupe A bi euh, Bayern nag dafa dem fële gagné fa locomotive bi ñaari bal ci benn Atlético gagné Salzbourg ñetti bal ci ñaar ci groupe B bi Shakhtar ak Inter Inter zéro but partout la Mönchengladbach ak Real Madrid la ci groupe C bi ko fekk gagné ko ñetti bal Abdou Cissé ak Ousseynou Ba ñaari bal ci dara ci groupe D bi Atlanta Bergame ak euh, Ajax deux buts partout la Liverpool ak équipe bi di euh, Midtjylland 2 à 0 la. lañu koy jaxle làmb rek ak tamit consultation yi nga xam ne ko yël ba léegi tey nag amul ndaxte conseil consultation yi jëm ci li nga xam ne rek moom mooy wàllu CNG bi di fàttali nag ministre des sports moom mooy tànn ki ñu war a fal CNG Maria. jar naa leeral El Hadj ndax keroog maa ngi la koy laaj naan la naka la xam nga loolu moom cëru ministre bi la. waaw ba xam mhm. naa Maria a xam. waaw waaw <laughs> <laughs> a may rëy xam naa ne daal mu ngi noonu jërëjëf El Hadj Malick Ndiaye dig daje 8h ngir yeneen ci xibaar <laughs> Sud FM en mode majeur, les temps changent et de nous recevoir de vous retrouver comme tous les matins. Merci encore une fois de votre fidélité. Et tout de suite, euh, Adjaratou Ndeye Marième Ndiaye pour la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

Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. La récurrence des cas d'émigration clandestine de Sénégalais via l'océan a fait sortir le président de PASTEF les Patriotes. Ousmane Sonko, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, s'est défoulé sur le président Macky Sall et sur son régime concernant l'émigration clandestine qui prend des proportions inquiétantes. Dans une vidéo en Wolof partagée sur sa page Facebook, Ousmane Sonko a dit tenir pour responsable le chef de l'État Macky Sall qui En plus, c'est ce même Sall qui avait promis 100 000 à 150 000 emplois par an aux jeunes du pays. En plus, Macky s'était engagé à construire 15 000 logements sociaux lors de son premier septennat et il en promet encore pour ce deuxième mandat. Ce alors que la première promesse n'a pas encore été tenue. Et c'est suffisant pour le président de PASTEF les Patriotes pour dire qu'on ne dirige pas un pays dans la tromperie et des promesses impossibles à réaliser. Ousmane Sonko accuse Macky Sall de trahison et

députés à l'Assemblée nationale estiment que même si le gouvernement a échoué dans sa politique d'emploi, ce n'est pas suffisant pour prendre les pirogues. En tout cas, nos confrères de l'I quotidien sont convaincus que les jeunes sont victimes du manque d'emploi et de la malgouvernance. Et encore hier, une pirogue bondée de jeunes sénégalais était en partance pour l'Espagne et cette pirogue avec clandestins à bord a finalement échoué à Saint-Louis. Dans le journal Diop. Ces migrants fatigués ont finalement rallié Saint-Louis sans provision et rongés par la fatigue. Ils ont décidé d'accoster près de Saint-Louis. Les responsables avaient perdu le cap devant les menées vers les îles Canaries. En tout cas, l'hécatombe continue et nos confrères du journal Libération nous indiquent qu'hier, une pirogue s'est renversée au large de Dakar avec à son bord au moins 100 passagers. C'est dire que les pertes humaines sont lourdes et en bord, près de euh, passagers prenaient feu au large de Mbourg. Seuls 51 migrants seront secourus. Mais il faut signaler que ces drames en série ne semblent pas décourager les candidats au voyage. Et d'ailleurs, quelques membres du gouvernement préconisent la criminalisation du convoyage de migrants. Cependant, nous disent nos confrères du journal Vox Populi, si Mansour et Néné Fatoumata Tall sont d'accord pour ces sanctions, le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye penche aujourd'hui sur le cas du Parti socialiste qu'il considère comme un parti en état de mort clinique. Et selon nos confrères, il ne s'agit pas d'une opinion subjective, mais d'une vérité constatée au vu et au su de ses dissensions internes et de la léthargie dans laquelle gît le parti de Senghor depuis presque un quart de siècle. Et l'on reparle des propos du président français qui, lors d'un hommage au professeur Samuel Paty, promet de ne pas renoncer vidéos ont suscité une colère grandissante du monde euh, musulman contre Emmanuel Macron. Nos confrères de Dakar Times qui nous en parlent nous indiquent des manifestations et appels au boycott se multiplient depuis à travers le globe. Cependant, ici au Sénégal, les réactions tardent. C'est ce qu'a d'ailleurs déploré l'ONG Jamra par la voix de son vice-président Mame Mactar Guèye. Et pourtant, nous disent nos confrères du quotidien Les Échos, au Sénégal, à la suite des indignations cela à travers une sortie de la structure Khoudamoul Khadim. Et c'est pour dire que les propos de Macron sont graves et il l'accuse de combattre l'islam et les musulmans. En plus de condamner donc ces propos, les Mbaké Mbaké ont entonné le chant de boycott qui résonne actuellement dans beaucoup de pays musulmans, notamment les pays arabes. Et le mouvement, à travers son président Serigne Bassirou Mbacké, Ibn Serigne Cheikh Thioro, demande aux musulmans sénégalais de boycotter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 Tourum Banok Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 macha allah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire les établissements Mbaye et frères les boissons punch Walo et Spem Sénégal premier équipement et La revue de presse. Euh, revue de presse par Diaratoulaye Mariam Ndiaye, exactement 32 minutes après 7 heures. Tout de suite, deuxième édition de ce bloc d'information Babacar Sam et l'on euh, reparle de l'affaire Télico, le président de l'UMS euh, auditionné ce matin. Bras de fer en tout cas entre euh, le juge Souleymane Téliko et le ministre de la Justice, le président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Téliko, sera auditionné ce mercredi par le rapporteur la Cour suprême. L'origine du différend entre le patron de l'UMS et, le, et la chancellerie avec Birame Ndiaye. Le président de l'Union des magistrats du Sénégal est attendu ce mercredi à la Cour suprême de Dakar. Souleymane Teliko doit en effet faire face au rapporteur qui a été désigné pour l'entendre dans le cadre des poursuites engagées contre lui par le ministre de la Justice. À la fin de l'audition, le procureur général de la Cour d'appel de Ziguinchor va dresser son rapport dans lequel il va dire s'il estime que des poursuites soient engagées ou non devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Pour rappel, Souleymane Teliko avait rappelé dans une émission ce qu'avait déclaré la Cour de justice de la CEDEAO, que la présomption d'innocence de l'ancien maire de Dakar et le droit de sa défense avaient été violés par la justice sénégalaise. Depuis lors, un bras de fer entre le patron de l'UMS et la chancellerie est enclenché. En fait, le ministère de la Justice a informé par un communiqué de presse diffusé le 28 septembre 2020 que le garde des Sceaux a saisi la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature à la suite du rapport de ligage concernant le président de l'Union des magistrats sénégalais, Souleymane Teliko. L'inspection générale de l'administration de la justice aurait retenu, entre autres arguments, l'article 14 de la loi 2017-10 du 17 janvier 2017 portant statut des magistrats. un argument qui interpelle certains magistrats. L'autre argument invoqué par Ligaz, c'est la violation de son serment prévu par l'article 9 du statut. Je le cite, « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune à questions relevant de la compétence des juridictions et d'observer en tout la réserve, l'honneur et la dignité que ces fonctions imposent. Fin de citation. Dans cette bataille, six organisations de la société civile et de défense des droits humains et autres ont exprimé leur soutien au président de l'Union des magistrats du Sénégal, une attitude inhabituelle dans la Cour qui a poussé le très taiseux et émérite magistrat Cheikh Tidiane Koulibaly, premier président de la Cour suprême, à faire une sortie publique pour rappeler les principes aux uns et aux autres. Quoique rassurante, cette sortie du premier président est loin de mettre un terme au bras de fer entre la chancellerie et le syndicat des magistrats. Birama Ndiaye donc euh, retenez que le juge euh, Souleymane Teliko fera face au rapporteur désigné par la Cour suprême c'est ce matin Émigration clandestine, une pirogue avec à bord 200 personnes interceptées hier mardi au large de Saint-Louis. Euh, selon le communiqué de la gendarmerie, la pirogue avait quitté Mbour le 18 octobre dernier. Les responsables avaient perdu le cap devant les Moniches vers les îles Canaries. Finalement, ils ont décidé d'accoster au large de Saint-Louis. La majorité des passagers ont pris la fuite. Huit candidats à l'immigration clandestine arrêtés actuellement à la brigade gendarmerie de Saint-Louis pour les besoins de l'enquête. Deux moteurs ont été également euh, saisis. Et euh, de Mbour, euh, au donc a fait le bilan de ces de surveillance. En une semaine, plus d'une trentaine d'individus âgés entre 17 et 59 ans, dont deux femmes et trois personnes de nationalité étrangère, ont été interpellés puis déférés au parquet. Parmi les prévenus, une dizaine de professionnels de la pêche. Moustapha une trentaine de candidats à l'immigration clandestine et convoyeurs interpellés en une semaine par la police de Mbour. Ils ont été tous déférés au parquet du tribunal de grande instance de la localité. L'âge des personnes arrêtées varie entre 17 et 59 ans. Dans ce lot de volontaires à la recherche d'une vie meilleure en Europe, on dénombre deux mineurs, deux femmes et trois individus de nationalité étrangère, des Gambiens parmi eux, un mineur qui fête ses 17 berges. la liste. L'un habite à Sali Portudal, l'autre vient de Dakar au quartier Diamagun. Parmi les prévenus, on note la présence d'une dizaine de professionnels de pêche qui tentaient de prendre la Méditerranée par le biais des pirogues de fortune. Devant le procureur, ils sont poursuivis pour les motifs suivants participation à l'immigration clandestine, trafic de migrants, infraction à la législation des titres de séjour et établissement d'étrangers. L'enquête des Limiers 240 et 350 000 pour rallier l'Europe. Il faut aussi signaler que ces éléments à la recherche de l'Eldorado ont tous été interceptés en instance de départ en direction de l'Europe dans les quartiers de Golfe et de Tefes. Ceci entre dans le cadre d'une opération de veille et de surveillance pour dissuader les départs sur les plages de la Petite Côte. Avec ces patrouilles effectuées par les flics dans les points stratégiques depuis la recrudescence de l'immigration clandestine, on peut dire à l'immigration clandestine. À ce jour, hormis la trentaine d'individus déférés au parquet, cinq autres accroupissent derrière les grilles de la police. En attendant, l'enquête suit son cours. Moustapha Salembourg pour la radio Sud FM. Moustapha Sall, les convoyeurs encourent des peines de 10 ans de prison et une amende pécuniaire selon la loi de sur la traite des enfants. L'annonce du ministre de l'Intérieur qui estime que les opérations de sécurisation et de ratissage ont permis de la main sur 28 présumés convoyeurs Aliou Ndiaye que je vous propose d'écouter. Disons que nous avons aujourd'hui un arsenal qui existe actuellement pour quand même euh, condamner de façon très ferme, notamment les convoyeurs. Euh, c'est vrai qu'il n'y a pas, le dispositif n'est pas répressif pour ceux qui vont parce qu'ils ont, considéré comme étant des victimes. Parce que vous savez, quand on suit une traite, on est plutôt une victime. Mais c'est plutôt ceux qui vivent de ça euh, qui, aujourd'hui, dans le cadre de l'arsenal juridique a, sont, sont, peuvent être lourdement condamnés. On n'a pour euh, considérés des présumés convoyeurs qui sont entre les mains de la justice. Et très certainement, la, la justice fera son travail et que ces gens seront condamnés parce qu'ils participent aujourd'hui à, disons, l'émigration clandestine par voie maritime de, de, ces jeunes. Et malheureusement, comme, comme on le sait, euh, c'est pas toujours évident. On, on, a même des difficultés pour avoir les statistiques. Il y a certainement des, morts. Nous, savons qu'il y a même des, morts de l'autre côté. Et nous pensons qu'avec les la, la surveillance et d'une part, euh, donc renforcer la soirée et d'autre part, leur donner des opportunités, ce phénomène devrait être jugulé. Ah non, les convoyeurs, si vous regardez la loi de 2005 sur la traite euh, des, des enfants, ils encourent des peines jusqu'à même 10 ans de prison, sans compter les, les, sanctions pécuniaires. Certainement non, parce que je sais le dispositif sécuritaire, c'est un dispositif qui fonctionne, qui fonctionne très bien. D'ailleurs, nous avons pu euh, empêcher le, départ de, de, plusieurs jeunes. En fait, ici, on voit que peut-être c'est cas, mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont même pas eu l'occasion de prendre euh, la mer. Euh, parce que c'est tout un ensemble, c'est tout un ensemble et puis à chaque fois les, gens s'y vont avec d'autres artifices qu'on parvient à, déjouer. C'est ce qui montre que c'est de vrais trafiquants également qui sont, qui sont derrière. Euh, nous avions connu à un moment donné une accalmie pendant un certain temps, quand le dispositif était très fort, n'utilisait plus les, les sénégalaises, mais prenez la route. Maintenant, avec les différentes restrictions qu'il y a dans le déplacement avec les fermetures des frontières, ces déplacements ne sont plus possibles. C'est pourquoi ils ont repris. Mais je pense qu'avec les nouvelles dispositions qu'on a prises euh, depuis hier, on va quand même euh, peut-être certainement avoir des résultats dans les jours à venir. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, et puis le leader du parti Pastef accuse le président Macky Sall d'être le principal responsable de la recrudescence de l'immigration clandestine. Ousmane Sonko dénonce le fort taux de chômage, conséquence de la mauvaise gouvernance du chef de l'État Macky Sall. Et puis les cadres républicains appellent à intensifier la communication sur les nombreuses opportunités euh, qui sont offertes aux jeunes pour lutter contre l'immigration clandestine. les euh, opportunités justement la directrice euh, générale de l'agence nationale aquacole invite les jeunes qui prennent les pirogues à s'intéresser à la pisciculture l'une des activités agricoles les plus rentables Tening Sène effectue une tournée au niveau de la commune de Toubacouta dans le cadre de la relance des activités de l'ANA Ngorsar La directrice générale de l'Agence nationale Aquacole a visité plusieurs sites au niveau de la commune de Touba-Kouta dans le cadre de la relance des activités de l'ANA. Elle a participé à l'empoisonnement de 10 cages flottant au niveau de la vallée Senghor à Sinthioubeira avec 10 000 alevins. une activité génératrice de revenus pour les populations. Tenengsen, directrice générale de l'ANA. Nous avons aujourd'hui procédé à l'empoisonnement des 10 cages qui ont été financées dans le cadre du PUMA, avec avec aussi de l'aliment qu'on a amené sur les 20 et nos agents vont continuer l'empoisonnement des cages restantes. 1000 alvins par cage, chaque cage peut produire entre et 400 kg. Ça fait en moyenne au moins entre et tonnes qu'on peut récolter vraiment très intéressant comme activité en termes d'activité génératrice de revenus. Elle a aussi procédé au lancement des travaux de construction de l'écloserie dans le vin d'un coût de 39 millions de francs CFA dans le même village de Sinthioubeira pour l'approvisionnement de l'unité aquacole au La directrice générale invite les jeunes qui prennent les pirogues à s'intéresser à la pisciculture, l'une des activités agricoles les plus rentables. Pour tourisme, la DER a un budget de 1 milliard 200 pour financer des projets de jeunes dans la pisciculture. Et je pense que les jeunes qui sont aujourd'hui les plus vus dans l'immigration, ce sont les jeunes qui sont au niveau des côtes, c'est-à-dire des jeunes de Saint-Louis et Je pense que pour les retenir aujourd'hui, dans leurs différentes localités, euh, ils doivent s'intéresser à, la pisciculture. L'aquaculture fait partie des activités agricoles les plus Elle a été accompagnée par les autorités administratives et locales. FM. Gorsar, la pisciculture entendait par là la culture du riz et élevage de poissons dans un même euh, le projet mis en euh, branle dans zone de Niagis. 75 hectares ont été effectués euh, pour dérouler cette rizipisciculture. pour l'autosuffisance alimentaire. Ignace Dey. Ignace euh, Dey euh, sur euh, donc la rizi pisciculture, une des opportunités pour lutter contre l'immigration clandestine, mais également pour l'autosuffisance alimentaire. Ignace, est-ce que nous écoutons Dans ce contexte marqué par une recrudescence de l'immigration clandestine, ces bassins piscirisicoles constituent aujourd'hui une véritable les jeunes de la zone de Niaguis. 75 hectares ont été d'ailleurs octroyés commune de Niaguis aux populations qui, à travers ces étangs rizipiscicoles, cultivent le riz et élèvent du poisson en temps. Une famille, un c'est d'ailleurs le pari que se fixent les acteurs du RENAD, le réseau des acteurs du développement. Son coordonnateur Eud Diatta explique. Ouais, pour moi, la solution, la meilleure solution, c'est de faire de la riziculture. Là, ça va permettre les, les familles, les jeunes d'avoir du euh, poisson et de l'argent. Et ça va créer l'emploi. pour arriver à une autosuffisance alimentaire et aussi donner une sens à la population locale, il faut faire de un étang rizipiscicole qui, qui consiste à, cultiver du et du La famille aura du poisson, elle Ces bassins pisciculteurs constituent non seulement une réponse à l'avancée du sel dans la zone, mais aussi une réponse à l'autosuffisance alimentaire, lance le sous-préfet de Niaguis, Richard Biram Faye. Ma présence, elle se justifie par ça, mieux comprendre et en faire un relais au niveau central pour demander aux autorités compétentes une solution pour euh, lutter contre l'avancée du Le gouvernement a un projet de milliards avec la BAD pour lutter contre l'avancée de la, du au niveau du barrage de Guidel à Niagis. Donc la solution qu'on peut avoir ici, c'est la solution locale proposée par le RENAT et les femmes et les jeunes qui veulent développer de l'agriculture et aussi répondre à, l'appel de la sécurité alimentaire. Ces étangs rizipiscicoles installés sur la berge de Fanda fourniront dans les prochains mois plus d'une tonne de religion, mais un projet qui se heurte à une panoplie de difficultés qui se résume généralement au manque de moyens. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM. Sud FM. Caricature du prophète de l'islam, de la paix. Le prophète Mohamed PS salut sur lui à Saint-Louis, les responsables de la SCAI, entendez par là l'association de soutien et de coordination des activités islamiques condamne les propos du président français sur l'islam et son prophète. Il invite les chefs d'États africains à se euh, solidariser avec la communauté islamique pour boycotter politiquement, socialement et culturellement la France. Mouhamadou Aliou Mbaye, le secrétaire général de l'ASCAI que nous écoutons. L'ASCAI, par la voix de son président, Imam Serigne Abdallah Sall, Ibn Serigne Abbas Sall, vous souhaite tout d'abord un bon Mawlid. Aussi, à la sortie de notre réunion mensuelle, l'ASCAI a pris une position sur les propos du président Macron, qui, au fond, ne font que raviver la flamme de la ferveur, de l'amour que les musulmans portent au prophète Mohammed, paix sur lui. Nous exhortons la population sénégalaise à boycotter les produits français dans leur totalité, économique, sociale, culturelle. Nous demandons aussi au gouvernement d'être solidaire avec la Oumma musulmane. Voilà, et puis euh, également cette manifestation de colère des populations de Katakel, Médina Ndiobène et celle de Ndioudiène et villages environnants euh, dans le département de Kaffrine. Euh, ces populations ont manifesté leur colère contre le responsable de Flex ou euh, dans la zone, elles ont arboré des brassards rouges pour s'opposer au remplacement du conducteur du forage de Katakel. Reportage Mamadou Camara. Mamadou euh, Camara sur euh, donc euh, cette manifestation de colère des populations de Katakel, Médina Ndiobène et celle de Ndioudiène et villages environnants. Ces populations ont arboré des brassards rouges pour s'opposer au remplacement du conducteur du forage de Katakel. Mamadou Camara l'élément n'est pas disponible retenez également que le responsable de Flexo à Katakel a porté plainte contre l'ex-conducteur du forage de Katakel pour propos euh, indécents après des échanges au téléphone ce mercredi donc les populations de Katakel de Médina Ndiouben et Ndioudiène ont décidé de se rendre en masse à la gendarmerie de Kaffrine pour assister le conducteur du forage convoqué pour être entendu euh, des populations qui sont euh, déterminées à extirper le conducteur des mains donc des gendarmeries des gendarmes de Kaffrine Distel donc euh, nous allons reparler de ce reportage de Mamadou Camara Aziz Diagne nañu dimbali li laay war a sóoli yii bàyyi ñu fi si Younouss Dramé. xamuñ Aziz Diagne. pare nañ dara suba. Les populations de Médina Ndioudjène, celles de Ndioudjène et de Katakel dans le département de Kaffrine ont porté des brassards rouges. Elles ont manifesté leur amertume contre le responsable de Flexo et dénoncent en même temps le remplacement du conducteur du forage de Katakel. Ces populations indexent d'un doigt accusateur Flexo. Mon nom c'est Mamoudou Dramé. Donc je suis habitant de, du village. Je porte la parole ou bien de toute la population katakeloise. Il s'est trouvé que le directeur du Flexo est venu nous imposer un autre conducteur mm. parce qu'il y a il n'y a ni, ni de faute euh, grave sur le, sur le plan du travail, mais il y a des, euh, euh des choses personnelles entre le conducteur qui se nomme Younous et le directeur, par téléphone ou bien Nous, ça ne nous, ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il fait dans ce village-là. Et, également ce qu'il fait, pour le forage. Ah Alors, nous tenons à, à, à dire du président de la République, si le directeur insiste à changer notre, notre conducteur, il va, il va marcher sur nos cadavres. Nous Le responsable de FlexO a déposé une plainte contre lex du forage qui, selon lui, a tenu des propos indécents contre sa personne. Un dossier qui est entre les mains du commandant de la gendarmerie de Kaffrine. Affaire à suivre. Kaffrine, Arrêt des travaux par la DESCOS d'un supposé chantier de centre de contrôle technique à l'entrée de la ville de Thiès à hauteur donc du quartier Grand Standing. Euh, les riverains et le mouvement Y en a marre saluent cette mesure de l'autorité qui vise à protéger le foncier dans la capitale du rail. Les défenseurs du foncier à Thiès craignent un deal entre un promoteur thiessois et certains prédateurs fonciers. Salou de Y et du mouvement Aar Li a fait Nous l'écoutons au micro de Babacar C'est effectif. Nous avons reçu des informations et nous sommes en train de, de creuser que les autorités au plan euh, national ont pris la décision d'arrêter le travail. Parce que pour nous, cette bande ne doit plus être agressée. Depuis il y a 5 ans que nous nous battons pour la préservation des dépendants de l'avenue Caen. Le premier projet qui a été débuté en a engendré des problèmes avec les familles qui sont qui est venu que faire un centre technique. Mais comment faire un centre technique sur une surface qui ne fait même pas 1500 mètres carrés Alors que pour qu'un centre puisse répondre aux normes, il faut au moins 7000 mètres carrés pour que les normes sécuritaires et environnementales soient, soient respectées. Un centre qui doit recevoir en moyenne 100 à 250 véhicules par jour. Mais on ne peut pas l'ériger dans une parcelle de terre qui ne fait pas 1000 mètres carrés. Donc nous, nous le dénonçons et nous demandons une bonne fois d'ailleurs au président de la République, Macky Sall, de prendre des dispositions comme il a fait à Pékin récemment, quand même de prendre des mesures mesures pour protéger toute la bande, de l'avenue Caen. Parce que c'est des grands espaces qui doivent abriter des aménagements publics paysagers pour des besoins d'intérêt public. De la porte d'entrée de Thiès à la mairie de la ville. C'est des espaces de de 1500, qui ont besoin d'être protégés. Et pour nous, le président de la République, en l'occurrence aussi le préfet du département de Thiès, doit aussi prendre des mesures pour, protéger cet espace. Parce que préserver, mais non. Ils donnent des attestations d'attribution à tout vent. Et d'ailleurs, on, on aurait été informé que le gars a débuté ses travaux, le promoteur a débuté ses travaux sans autorisation de construction. phase 2 du programme de modernisation des villes Promoville, le ministre du Développement communautaire de l'équité territoriale et sociale a procédé hier mardi au lancement officiel de l'élargissement du boulevard Maurice Gueye. C'est à Rufisque, un boulevard qui sera aménagé, éclairé et assaini sur un linéaire de 3,5 km allant du carrefour euh, Djoutibi au carrefour de la Sokosim avec une double voie de 7 mètres de largeur chacune sur un délit de quatre mois et puis euh, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi numéro 31 2020 euh, portant création du fonds d'entretien routier autonome FERA le FERA avec cette loi opère une mutation institutionnelle qui va leur euh, qui va lui permettre selon le ministre des infrastructures des transports et du désenclavement de répondre aux règlements de l'UEMOA et de mieux mobiliser des ressources financières pour l'entretien des routes Oumar Youm Bourgoum que vous entendrez. Il sera l'invité de ce Sud Matin. Le mérite c'est le titre du texte narratif de l'auteur Mohamed Gassama, le chercheur qui se pose des questions sur la notion du mérite et de l'éthique euh, et des euh, euh compétences professionnelles au Sénégal. où euh, le plus souvent l'appartenance politique est mise en avant euh, pour le choix des personnes à des euh, postes de responsabilité. Voici Mohamed Gassama au micro d'Amadou Moustapha Dia. Des questions tantôt d'autobiographie et tantôt de, de diagnostic approfondi de la situation de notre pays. Quand je parle de situation de notre pays, je précise qu'il s'agit bien entendu du service public notamment le service public de l'audiovisuel. J'ai écrit pour faire savoir, je n'ai pas écrit pour faire croire. C'est-à-dire que tout ce que je soulève dans ce roman euh, procède d'un constat, d'un diagnostic euh, euh, qui m'a été révélé après plusieurs années. Le mérite s'étouffe procède d'un constat, d'un diagnostic de ce que j'ai vécu et de ce que tout le monde vit euh, au Sénégal de façon générale. Il s'agit aujourd'hui de mettre le, le doigt sur euh, ce qu'on peut appeler euh, une politisation à outrance de l'administration publique ou une fonctionnalisation de l'administration. Ça veut dire quoi Aujourd'hui, on met plus l'accent sur euh, la coloration politique, on met plus l'accent sur Euh, les connaissances particulières. Voilà, Mohamedou Gassama, que vous entendrez largement dans notre édition. Alors voilà, Maria, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci beaucoup à vous, Babacar Sam. Et nous complétons euh, cette session d'information avec l'invité du jour. Sud Matin, l'invité du jour. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi numéro 31/2020 portant création du fonds d'entretien routier autonome FERA. Notre invité, monsieur le ministre Oumar ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, nous en plus au micro d'Amadou Moustapha Dia. Euh, un fonds d'entretien routier autonome qui a fini de faire ses preuves dans un contexte d'amélioration de notre patrimoine routier entre 2007 et aujourd'hui, doit entrer dans une nouvelle phase pour être une, euh, un, deuxième, euh, un fonds de deuxième génération qui est un fonds d'abord créé sur des bases juridiques solides. On ne peut pas avoir une meilleure base juridique que la loi. Un fonds qui réaffirme de la vocation d'organe de financement de l'entretien routier et c'est bien sûr euh, affirmé dans le projet dans le projet de loi qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale mais aussi un fonds soumis à un contrôle régulier un, un contrôle interne un contrôle externe par des experts financiers mais aussi un contrôle des organes euh, de l'État du Sénégal et aussi un fonds qui est doté de ressources pérennes et ça c'est retenu par la directive de l'UEMOA qui exige des États de mettre en place des organes de financement de l'entretien routier dotés de ressources financières pérennes, notamment de taxes qui leur sont exclusivement dédiées. Et c'est le cas aujourd'hui à travers aussi ce projet de loi qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale avec une très belle contribution des députés qui ont compris le sens de la mission et l'importance de la mission du FERA et qui ont pris sur eux-mêmes un amendement qui est venu enrichir le texte pour le mettre davantage en conformité avec les directives, le règlement de l'UEMOA, mais aussi l'environnement et les engagements internationaux du Sénégal. Qui dit, euh, qui dit FERA dit entretien des routes. Vous avez beaucoup insisté sur l'application intégrale. Nous avons fait beaucoup d'efforts, il reste beaucoup d'efforts à faire et l'État du Sénégal s'est engagé dans le cadre du PAP 2 à poursuivre les efforts de développement de ces infrastructures routières. Il faut donc investir Il faut investir aussi pour euh, entretenir le réseau routier, ce qui est le cas à travers cette réforme qui est engagée. Mais il faut aussi des comportements qui nous permettent aussi de préserver. Parmi ces comportements, c'est la discipline, c'est le respect de la réglementation sur les charges à l'essieu. Ça, l'UEMOA à réglementé à travers une directive depuis 2005, la, le règlement 14, qui est d'application immédiate dans tous les États de l'UEMOA, y compris donc le Sénégal. Le Sénégal l'a appliqué avec euh, les États membres de l'UEMOA dans une démarche euh, progressive. Aujourd'hui, nous sommes presque à la phase terminale où en mars 2021, tous les pays se sont engagés à appliquer de manière intégrale le règlement et le Sénégal ne fera pas défaut par rapport à ces engagements. Le TER, c'est un dossier, euh, projet qui euh, bien Euh, maîtrisé. Donc euh, on presque à la fin des travaux du TER, donc des travaux en termes d'infrastructure. La plateforme ferroviaire est terminée à 100%. Euh, les autres marchés sont bouclés. Il reste deux marchés en suspens. C'est le marché du, des, euh, du système euh, de signalisation, le marché de l'électricité et le marché des gares qui doivent être terminés. Pour ce qui concerne le marché des systèmes, on n'a pas de doute que le, le titulaire du marché qui est Euh, un groupement international euh, qui a une signature de, de renommée mondiale euh, accomplira dans le cadre de ses engagements décembre 2020 toutes les tâches qui lui incombent. Il restera à mettre un peu de pression sur les entreprises sénégalaises euh, qui doivent terminer les gares, bien sûr, parce que sur la volonté du chef de l'État, une partie de ces marchés avait été dévolue aux entreprises sénégalaises. Ces entreprises sénégalaises, malheureusement, en l'état actuel, euh, traîne un peu les pieds, mais nous sommes en train de discuter avec elle pour trouver les meilleures dispositions nécessaires pour accompagner et finaliser ces travaux. Donc en principe, il ne reste pas grand-chose. Nous pensons qu'au décembre 2020, euh, le projet du TER sera bouclé. dans sa partie physique, il restera maintenant dans sa partie commerciale au président de la République, après avoir apprécié les conditions de sécurité, de donner la date de mise en service commercial du TR. Vous l'avez dit tout à euh, en 2021, véhicules qui dépassent une durée de vie de le rajeunissement du parc oui, automobile pour réconcilier le Sénégal avec ses engagements internationaux en termes de transport décarboné. Donc nous voulons des moyens de transport dans le service public du transport, des moyens sûrs des moyens modernes, mais aussi des moyens confortables qui permettent de réduire euh, la facture carbone du Sénégal, mais aussi qui permettent de réduire euh, euh, la, les, les, les dégradations de la qualité de l'air et donc d'améliorer le bien-être des populations. À ce titre, nous avons une politique de rajeunissement qui va prendre, euh, qui va entrer en, en, dans sa phase active euh, au moment du, du renouvellement intensif du parc. Nous pensons que décembre c'est la date fatidique pour que le Sénégal oublie euh, les véhicules qui vont de 40 ans, 35 ans, euh, 40 ans, 25 euh, ans, qui sont plus âgés que les chauffeurs qui les conduisent. Donc, dans le transport public, à partir de 2022, Inch'Allah, nous voulons avoir des de transport contrôlés avec une durée d'exploitation limitée dans le temps, 10 ans pour les taxis maximum, 15 ans pour les autres moyens de transport public, donc ceux qui sont sur le segment du transport interurbain, 20 pour les poids lourds, Ça aussi, c'est un engagement de Sénégal. Nous Le BRT, ça fait un an que ça a été lancé, jour pour jour, je pense le 29 octobre 2019. Euh, les travaux ont démarré. Nous sommes à peu près aux de 15 parce que simplement, effectivement, juste après le démarrage, en 2020, nous avons connu cette euh, pandémie d'urgence sanitaire euh, Euh, de portée internationale qu'on appelle la Covid-19, qui a effectivement eu un euh, Mais avec l'entreprise qui a une signature internationale, entreprise très sérieuse, qui a habitués à des performances, nous ne doutons pas que les mois à venir. Et donc, euh, Inch'Allah, euh, projet-là est, projet qui est bien le satisfait de la Banque mondiale à l'occasion mission qui s'est déroulée bu ko ñenn ñi diir ndakaaru fekk ñun weesu nañu leen Sud FM moo leen di taaj ci xolu Sénégal lii nag mooy wute gi ci Sud FM Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm Sud FM il est 8 heures

dañuy dellusiwaat ci li nga xam ne rek moo ko booleeg ñi nga xam ne mooy kilifaam yi dañ ci ànd ak kii di Birama Ndiaye. président union des magistrats du Sénégal ñoo ngi koy xaarandi niki àllarba gi ci cour suprême bu Ndakaaru Souleymane Teliko war na janoog rapporteur bi nga xamante ne moom moo ko war a déglu ci li nga xamante ne moom la jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub yoon di ko toppee ci njeexitalu jano boobee nag procureur général bu Cour d'appel bu Ziguinchor dina def ab rapport ci rapport boobee sax muy xool ndax jar nañu daal di ko topp am déet ci kanamu formation disciplinaire bu conseil supérieur de la magistrature ñu fàttali leen ne Souleymane Teliko dafa fàttali woon rek ci benn émission la nga xamante ne moom la cour de justice de la CEDEAO waxoon ne présomption d'innocence bu ancien maire bu Ndakaaru ak ay àqam ak yelleefam li la di justice bu réewum Sénégal da ko daal di salfaañi ca booba ba négési nag jàppante gu tar dox diggante njiital UMS ak yëtt ki nga xamante ne moom mooy jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu yoon ci mim réew firnde la mooy niki ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sattumbar gi ñu génn jaarale ko ci communiqué la garde des sceaux daal di xamle ne daal dina saisir lii la di formation disciplinaire bu conseil supérieur de la magistrature ginnaaw bu mu sukkandikoo ci rapport bu IGAS nga xamante ne da ko jagleel président union des magistrats bu Sénégal inspection générale de l' administration de la justice nag moo ngi sukkandikoo ci yeneen argument bokk na ci article 14 bu loi 2007 bi nga xamante ne niki 17 janvier 2017 ko daal di voté te muy addu ci statut magistrat yi beneen argument bi nga xamante ni IGAS daal di na ko fësal bokk na ci violation serment maanaam ñàkk a sàmmoonteeg waat gi nga xamante ne waat nañ ko biñ leen di tabb ma tuddal leen ko maa ngi waat ne dinaa doxal sama liggéeyu magistrat nu mu waree. te duma ci am xaj ak seen ci fonk constitution bu réewum Sénégal ak luwaay yi nga xamante ne moom la daal di tëral bépp secret bi nga xamante ne daal di na ruuse ma deewaaleeg moom ak luy génnee ci tribunal yi ak la nga xamante ne dañ koo wat te duma jël benn position duma joxe itam benn consultation ci ruq wala boog ci fi nga xamante ne moom moo jëm ci compétence juridiction yi te itam ànd ak tey ak dal maandu jàpp sama njàmbur ci lépp la nga xamante ne moom la fonction yooyu daal di santaane ci xeex boobee nag juróom-benn kuréel yu yëngu ci wàllu société civile ak xeex ngir nit daal di am ak ak yeleefam ak yeneen organisation daal di nañ jàppal tànk kii la di président bu union de magistrats du Sénégal. pëccëxoo googe nag daal di tàbbi ci biiru justice bi tax na ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Tidiane li nekk premier président bu cour suprême daal di génn ñëpp dégg ko ak it muy dànkaafu ñaari boor yëpp donte ne sax génn boobee daal di na dalab xel wante taxut jàppante bi dox diggante chancellerie bi ak syndicat de magistrats yi moo ngi wéy. ñu wax ci wàllu xibaaru te ak tamit ci wàllu immigration clandestine ak tamit ak gaal goo xam ne kat dafa teer démb nag ñaar fukki nit téeméer ñaar téeméer ci bokk ñu jàpp leen fële ci diwaan Ndar kàngam nag jàpp nañ leen ñu ngi jóge woon Mbuur fukki fan ak juróom-ñett ci weer wi ñu nekk nii bañ gisee nag gendarmerie la am ñu solo ci ay bés jàpp nañ nit yoo xam ne am nañ fukki at ak juróom benn jàpp juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent juróom-ñaar juróom fukki ñeent bokk na ci ñaari jigéen ak tamit ñett ñoo xam ne duñ ay doomu Sénégal ñu ci bëri nag ci wàllu napp gi la ñuy yëngoo dañ ci ànd ak kii di lu toll ci fanweeri doomu aadama yi nga xamante ni dañoo naroon a jël gaal gi ngir mbëkki daal di dem ci réewum tugal jàpp nañu leen fii ci mbuur ci lu matul ay bis ñoom ñëpp ñu daal di leen di jébbal procureur bu tribunal bu grande instance bu diwaan gi ñoom ñi nga xamante ni jàpp nañ leen boo dee xayma seeni at ki ci gën a nekk xale fukki at ak juróom-ñaar la am ki ci gën a nekk mag moom ma nga jàpp daanaka juróom-benn fukk yu manqué benn ci ñoom ñooñu sax nga xamante ne fi ñu toll nii rek dem Europe rek la ñu bëgg ngir am ëllëg gu ñoom dong wàññi nañ ci ñoom ñaari mineur ñaar ci ay jigéen ak ñett ñu nga xamante ni ñoom dëkkuñu fi ñu nga bawoo ca bitim réew kenn ki sax gone la am na ñaar ñu nga xamante ni ay élève lañu kenn ki mu ngi dëkk Saly daal ki ci des mi ngi bàyyi ko jàmm gën nekk ca Ndakaaru ñi nga xamante ni nag jàpp nañu leen am na ci ñoo xamante ni tamit ay nappkat lañu war nañoo mat fukk yu nga xamante ni ñoom daal gaal yi la ñu bëggoon a jël dem tugal la ñoom ñëpp nag jébbal nañ leen ki nga xamante ni mooy procureur lim leen toppe nag bokk na ca maanaam immigration clandestine tukki ca amaloo kayit ñeneen ñuy topp leen transporter maanaam yóbbu ay nit ñi ci des nag dugg ci mim réew te benn kayit enquête bi tamit daal di wane nit ñii nga xamante ne ñoom ñëpp dañoo bëgg tukki dañoo joxe xaalis xaalis ba nag buñ koy nattable toll na ci ñeent fukki junni ak ba ci juróom fukki junni yu nga xamante ne ñoom daal génnee nañ ko ci koppar ngir dem tugal ñu daal di fàttali ne tamit ñii ñoom ñëpp ñu ngi leen di jàppe ci quartier yu mel ne golf ak tefes ñuy waaje jël li nga xamante ni mooy yoonu mbëkk mi lee lii nag police da koo taxawal rek ci opération yu nga xamante ne ñoom nag la ñu bëgg mooy kenn bañ a jëlatee gaal gi fii nga xamante ni mooy diwaanu Mbuur policiers yi nag fi ñu toll nii toppee nañ mbooro bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoom ñooy jël gaal yi wala ñiy yóbbu kon ñi bëgg a dem ci réewu tugal ci bisub tey lu weesu fanweer yi nga xamante ni jot nañ leen a débbal procureur juróom yu bees fi ñu toll nii ñu ngi ci gannaaw grille yu police ngir xaar enquête bi daal di jeex Moustapha Sall Mbour Sud FM. Moustapha Sall képp koo xam ne da nga yóbbu nit nag lu toll ci kàttu kaso moom lay xaar ak tam bu takk ni ko loi 2005 waxee sur la traite des personnes kàddu yi ko rotal moo ministre ministre bi ñu dénk wàllu biir réew di Aly Ngouille Ndiaye ñu déglu ko. waaw loolu mënu waaye fi fi mu toll nii tembe moom am na ci wax dëgg yàlla la loi de 2005 bi nga xam ne bii mooy mooy wax ban daan la ñuy daan koo xam ne kii dañ koo jàpp ci muy def trafic. trafic bii ci la bokk muy nit ñuy jaar fii ak nit ñu fiy ñëw ak nit ñoo xam ne fii la ñuy jógee di dem bu fekkee na nga bokk ci organisation bi am na c'est peine yu am solo yoo xam ne mi ngi ci néega ni am na lu mat ñaar fukki nit ak juróom-ñett yoo xam ne yi jàpp na ne ñi ngi woon ci loolu donc ñi ngi ci loxo yoon te gëm naa ne yoon bu appliqué li nga xam ne lii moom la moom la loi bi tëral danañ danañ ma dal seen kaw sanction yu am solo la dem na ci sanction boo xam ne bii mën a dem tëdd sax ba foog naa ne fukki at ci kaso ak ay amende yoo xam ne ci wàllu xaalis bi mën nga ko fay loolu déjà existé c'est vrai que man nañ ko criminaliser mais en attendant da am na déjà arsenal bu fi nekk te xanaa peut-être ñu jéem a xool aussi parce que pour l'instant euh, ndaw yi nga xam moom la ñuy yóbbu ñoom dañ leen di jàpp ne ay victimes parce que kuy subir traite moom victime rek nga mën a ne ñi nga xam ne ne ñooy def traite bi moom yoon da mën a dal seen kaw bu baax a baax noonu non ànduñu ci c'est vrai que dispositif sécuritaire bi mi ngi fi woon euh, parce que bu ngeen seetloo Sénégal toll na période boo xam ne kenn déggatul sax kenn kuy dem kenn toogatul déggatul kenn kuy dem ba ba peut-être depuis deux mois de septembre affaire bi commencé jóg tàkkarnaase déjà ci depuis le 7 octobre am na ci ay gaal yu doon dem gaal yi nag Euh, ñi ngi gis également ni ñuy doxalee des fois yombu la yombu la euh, surveiller ndax ñaar euh, du ñu départ ci tefes ñoom ñëpp yeb na ñuy dem li ñu gis ne moom la ñuy def mooy dañuy gaal gi day dem ba ci biir géej mu taxaw fa di xaar ay gaal yu ndaw yoo xam ne dañuy mel ni ay nappkat lañ jël di yóbbu di yóbbu nit ñi donc loolu moo moo waral euh, peut-être na euh, au départ doo soupçonné que ne lii moo ci def waaye loolu mooy li nga xam ne lii peut-être mooy li ñu gis mais bari na yoo xam ne peut-être téye nañ leen sax avant ñuy dem ndax li ñu leen téye avant ñuy dem mooy nit ñi am nañ renseignement bi que ne ñi ngi préparé lii nga dem fekk soit fa ñuy réunion nga arrêté leen wala nga tas leen jàpp ñi nga xam ne ñoo ci nekk boo boobaa ñooñu dañuy recommencer war rek bi ñi ngi koy def ñun euh, ci Sénégal diggante marine euh, police ak gendarmerie ak ministère la pêche même muy liggéey bu am solo boo xam ne bii en tout cas bi nga xamee ne bii peut-être mbir mi gën naa jóg jël nañ ci également yeneen mesure pour gën a renforcer sécurité bi ñu wax ci parti bi di Pastef nag ñoom ñu ngi ñaawlu bu baax a baax li xew ci wàllu mbëkk mi joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne nag moom moo nekk Macky Sall nañ du kenn moom bi Khalifa Sall daal jiite daal di wax cadre républicain bi ñoom di wax nit ñi kat euh, maanaam nañ gën a wéyal communication su ko defee rek bàyyi nit ñi bañ di dem ñu wax ci wàllu riziculture maanaam mbayum euh, ceeb ak tamit boole ci ak di napp ci ab même bassin loolu nag projet boobu nekk nañ lu ñu taxawal fële ca ñaagi 75 hectares la leen affecté ngir rek loolu mën a antu ngir rek tontu immigration clandestine waaye tamit bay dundee ci ànd ak di Ignace ci jamono bi ñuy wax wàllu immigration clandestine Barça wala bokk Barça ak ay bassin piscirisicole yi nag nekk na li nga xamante ni mun naa fixé ndaw yi ci seen zone rawatina ci zone Niaguis lu toll ci soixante quinze hectares wàllu suuf ci booru géej gi lëmmi commune Niaguis daal di jagleel li nga xamante ni ñoo nekk ca boor yooyu di ay population yi nga xamante ni ci étang rizipiscole yi mun nañoo béy ceeb di napp tamit jën en même temps benn njaboot benn étang rizipiscole li ni mel la ñi di yëngu ci wàllu RENAT da fas yéene amal ci zone yi ni mel kii di seen coordonnateur Euth Diatta di expliquer. parce que fii da ngay mën a am jën am euh, ceeb aussi. da ngay baare euh, l'avance xorom bi waa te aussi dina si xale yi ak population bi si bi ñu am au moins i njëriñ waaw pour man mi c'est la solution la meilleure que pour suñu xale yi nekk fii solution bi moo nekk fii du faltu dem bu ñuy nangoo liggéey lépp mi ngi fii waaw parce que bi ñu commencé woon fii nga xool fële kenn du yaakaar ne lii dinañ ko am. ay bassin rizipiscicole yi nga xamante ni dina tax ñu daal di arrêté lii di xorom bi ci boor yooyu waaye tamit nekk na réponse pour wàllu autosuffisance alimentaire li ni mel kii di sous préfet bu ñaa ñaagis Richard xam fay moo ko xam xamle. loolu moo xam mu nekk loo xam ne solution bu baax la parce que loolu mooy ne day permettre nit ki mu am lu muy dundee. parce que dèjà ci état bi rek boo ci génne ceeb génne ci jën génne ci crevette dèjà sa añ assuré na bu lii bu ñu koy yaatalee ci yeneen dëkk yi vraiment lii président la ñuy woo ci naan euh, sécurité alimentaire mooy bay li ñuy lekk ak di lekk lu ñuy bay fii mooy lii. di ay étangs rizipiscicoles yu ñu taxawal ca booru dex ga ca Fanda yi nga xamante ni nag ca weer yi ñuy dëkkmal dinañu am lu toll ci benn tonne wàllu euh, jën yi nga xamante ni dañ ko récolter foofu expérience bi nga xamante kilifa yi bëgg nañ koo lawal ci gox-goxaan yi nekk fii ci diwaanu Ziguinchor di projet bi nga xamante ni tamit mu ngi jànkoonteel ay jafe-jafe te lu ci ëpp. muy ñàkkum jumtukaay yi Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace Ndeye ñu wax ci askan dëkkee ci Katakel Medina euh, Njubeen ak yi ndëkkee ci Njuñeen nekk ay gox yoo xam ne kat dañoo gis département Kaffrine am nañu doxam ñaxtu démb nag ñaawlu bu baax baax taxawaayu responsable flex ndox bi nekk ci gox boobu noonu dañ ci ànd ak kii di Mamadou Camara. Aziz Diagne nañu dimbali li laay war a suuli yii bàyyi ñu fi suñu dus Dramé bi. xamuñ Aziz Diagne. askan wayeewoo ca Medina Njuujeen Njuujeen ak Katakel ci département Kaffrine ñoom dañoo mer ndax takk nañ ay morso yu xonq wane seen naqar nee nañ ki nga xam ne moom moo doon doxal forage bi foofu di conducteur bi flex o def koo dàq. man la Pape Diaw dëkk Njuujeen. bokk si ñi jëlee forage bi. man yoroon naa forage bi. bi ma koy jël man fekk ma si 15. Yunus Dramé yëkkati woon na lu mat 2 millions million cinq cent teg ko sama loxo ma dem jëndi gasoil yor xaalis sama poche pendant du benn yoon du ñaari yoon dafa ma ci man sama benn dërëm tey suñ toogee ba ñu ne laa tey dañ ko fiy jëlee andil ñi kuñ xamul ñun wala andil ñi leneen man papa joo de xanduma tey xanduma ci suba xanduma ci gannaaw suba te Aziz Diagne nañu dimbali li war a suuli yii bàyyi ñu fi suñu dus dara bi xamuñ parce que ñun Aziz moo kan moo ko si eh, moo ko gis nañuy dimbali li laay warasul bàyyi ñi joti xuñee moom dara Aziz Diagne su bëggee leneen na dëkk ci biir péncam katakal mi toog fi wax ñun ñu xam Aziz mooy kan lu mooy loolu ñun laala ñoo moom ba raay bi teen nee na nag dina porte plainte damaa xamoon na porte plainte bi moom Amérique lay dalee wala Sénégal wala Gambie waaye ñun bu ma dundoo pare nañ dara suba ci kàddu euh, borom nga xam ñëw na bañ dal ci kawam moo ko de conducteur forage bi moo ñu xaw a ñun njuujeen bañ barrage katakel ak léegi war ma ñaar fukki at ñaar yaakaar naa 98 ak léegi la woon ñu ne kat njuuj Dramé mii xale kulaale mën nañu fee teg koo xam dañ ko xóotal euh, ak Dramé xatt na bi loo xam ne tey ba jafe-jafe xam ci sax day génn xale lam pour def ci kenn du yëg luñ mën tam Dramé moo ñu ko gënal ba mu xamee forage bi tey ci lenn loo ka yoroon forage ba ca Katakel waa Flexo rafetluñ ko ba tax na nag déposé nañ benn plainte ci gendarmerie bu Kaffrine. Kaffrine Mamadou Camara a FM. Mamadou Camara kii jiite Flexo nag ca Katakel moom dafa plainte yóbbu ci yoon kii conducteur forage bi ca Katakel ngir rek ay kàddu yoo xam ne ko wax te tegginul moo tax tax tey ji nag askan wi ca Katakel yépp ca mbirum jiw jóg nag bëgg koo gunge ca gendarmerie bu Kaffrine. Babou Diame mooy chef de village ba léegi kii mi ngi fi di liggéey te doomi dëkk bi yàqalul ñu dara tooñul ñu ci genn walla forage bi amul benn sikk manqué na fi machine man ak Papa Diaw ak moom ak maire ñoo dem Dakar bañ demee ñu ne ñu tey tey jii ba nga xamee ne toog nañ ba xam ne war naa xam quelques mois ñoom ñu diiti fa dellu keroog bañ demee lañ indi moteur bii nekk fi mu jigi courant bi ñëw fi courant bi ñaari xar fi war xam wala ñetti xar moom kii nag ñun bu suba ta Assis Diagne wax na ne danañu porter plainte ñun nag luñ ko def lu ñuy porter plainte xamuñ ko su fekkee porter nañu plainte ci siñ xalaal la ñuy porter plainte bon won nañu ne man maa leen ëpp doole lu ma neex def leen ñun jotewuñu ak moom dara suñu conducteur defu dak ñun leen loo mooy jubal liggéeyam forage bi mënta wasta manqué ndox forage boo ne dëkk bu duy si ne fi ndox dég manqué kàccot ak jënt pëlëg tay baag ñëpp si nañ fi ndox ay xati xat nanguwuñ ko te duñ ko nangu su fekkee nga xam ne xam na itam bon fa ñi ëpp doole def ñi la leen neex waaye nanguwuñ ko tey nanguwuñ njuujeen Medina njuujeen ñaari dëkk ñi Katakelle la Njuujeen Medina Njuujeen ñetti dëkk ñi moom la moom la forage bi xamee benn jafe-jafe moo ci am Katakelle moo ci ñooy rootaane d'accorduñ ci waajuñ ci d'accord d'accorduñ ci man maa di seen mag te su ma duñ d'accord wax ci dakkal gi njëkk a liggéey na des ko def ko ci benn chantier boo xam mu ngi nekk nag ci centre de contrôle technique ci boo dugg si Thiès ci nag quartier grand standing ni fa dëkkee nag ak mouvement Y'en a marre ñoom nag ñu ngi rafet lu baax a baax mesure boobu ñu jël ko day tax nag ñu aar wàllu suuf si saaliwu Ndiaye Y'en a marre nekk tamit mouvement aar lu ñu bokk ci micro Babacar Ndaw waaw parce que li ci lëndëm moo bari xam nga pour nga def centre technique ñun ñëpp xam nañ lu mu métti métti di am 7000 mètres mais tey soo demee fii foofu ñu wëralee pour tabax fa mais matul 1500 mètres te ñu ngi ko def ci porte d'entrée de la ville de Thiès jël assiette foncière boo xam te yaa ngi ko jox un promoteur mu ñëw di tabax su ko tabaxee am attestation d'attribution am daal bàyyi suba mu def ko titre foncier privé moom ko te foofu dafa doon ab néew devant ñu ngi koy jox à promoteur bu dëkk fii ci Thiès pour nee mu def fa centre technique mais centre technique doo ko def ci surface boo xamante ni surface su ñaari kër ñiy déglu ña may dégg nañu dem xool foofu foofu centre technique mënu faa nekk parce que surface bi dafa tuuti tey soo demee fa la wax pont aan te Ndakaaru gis nga la fa ne cay oto embouteillage yam fa créé donc dafa am lu baree bari luy lëndëm ci projet boobu ànd ñu

na lëndëm lool ñu ngi koy ñaawlu te danañ taxaw xeex ko te di wax la préfet du département de Thiès bii fi ne te nit ñi xam nañ courage ak fu mu jugee mu daal di jël ay mesures arrêté les travaux arrêté ko définitivement pour y voir plus clair ndax am nañ ci ay informations yoo xam ne danañ ko creuser mbir mi li ci ñuul bari na mu nekkoon Saliou Dia bu mouvement Y'en a marre bu Thiès ñu assemblée nationale nag adopté na dem projet de loi 31 2020 loolu nag jëm ci création fonds d'entretien automobile dindi lu sax kii di ministre bi njënk wàllu dem ak dikk El Hadji Omar Youm ci suñuy catal xibaar mu nekk suñu ganu kër le mérite s'étouffe loolu nag mooy téere bi nga xam ne kii di Mouhamed Gassama taskatu xibaar bind na ko ñu déglu ko ci muy indi ay leeral ci micro la a gëstu dañuy bind pour ñi nekk fi tey bind ñu fii nekk ëllëg gannaaw ëllëg et looloo tax ma bind te dama bind parce que dama toog seetaan xool bu baax jàngat bu baax gis ni attention sama dëkk dafa nekk dëkk bu nga xamante ne macha allah bëri na kàngam bëri na ñu bëgg jàng bëri na ñu jàng bëri na ñu xam waaye li ñu gis tey mooy ñi xam ñoom ñoo nekk ñoo gën a fës maanaam tey nit bu buggee nekk fen il faut moom li ci rax te seetlukat yi bëri ma ànd ak ñoom dañoo gis ni tey boo politikul boo yorul carte parti daanaka doo bokk ci ñi nga xamante ni war nañ leen di jox euh, ay ndomb tànk ñu mën a jiite euh, bokk ci liggéey réew mi te loolu dafa nekk lu nga xamante ne dafay delloo gannaaw liggéey parce que service public dafa war a nekk service bu nga xamante ne ñëpp ko bokk sénégalais sénégalais ñëpp ci yem nga bokk ci nguur bokkoo ci nguur nga far farloo li nga mën a li nga li la yellool dañ la ko war a jox loolu mooy mérite mérite boo ko xoolee euh, ci latin yi mérite dafa nekk li nga xamante ne maanaam payoor la payoor bu nga xam ne day fekk nga am coono bi nga daj boo dajee coono nag ñu daj laa fay fay boobu lañu doon wooye mérite ci euh, antiquité man loolu laa bëgg mu dellu si c'est-à-dire nit nañ la fay li nga euh, mérité waaye nag bon li ñu gis léegi mooy boo newul wiw ñu fàtte la boo newul wiw ñu gàllankoor la te loolu maanaam du tax ñu mën a avancer euh, ci dëkk. Mariane li ma fi ci wàllu xibaar ñu bàyyi deuxième partie ak magasin bi. jërëjëf El Hadj Malick ni nga ko waxee noonu la sax suñu ganu bés bi. ganu bés bi. assemblée nationale daal di adopté projet de loi boo xam ne numéro 31 2020 la euh, jëm ci li nga xam ne dañu bëgg a créer rek benn fonds d' entretien routier autonome ñu ngi ko dippee li nga xam ne moo di FERA ki ñu ciy indi ay leeral di euh, maître Oumar Youm di ministre des infrastructures des transports et du désenclavement ki ko taalal micro mu di Amadou Moustapha Dieng. waaw tey dañuy ñëw fii ci assemblée nationale euh, doon voté loi bu am solo ci infrastructure routière ñu tuddee ko loi portant donc fonds qui est un établissement public à statut spécial ñu tuddee ko FERA fonds d'entretien routier autonome fonds boobu nag amoon na fonds bu fi nekk ñu créé ko woon ci décret en 2007 waaye gis nañ ne fonds bi mu doxee ba ci kanam doxinam dëppoowul ak li nga xam ne moom la Sénégal signé ci engagement directive UEMOA andi ko ne fonds yi dañ leen war a créer par loi mais aussi fonds yi dañ leen war a jox xaalis bu doy xaalis boobu aussi dafa war a euh, adossé wu ci taxe boo xam ne ni taxe boobu dañ koy prélever jox ko exclusivement fonds loolu nag moom manqué woon ci euh, FERA bi nga xam ne amoon nañ ko moo tax loi bi indi ay correction pour que FERA boobu nekk d'abord une création par loi ce qui est le mais aussi FERA boobu affirmer son rôle et son caractère d'organe de financement ce qui est le cas FERA boobu aussi mun a am Euh, xaalis boo xam ne xaalis boobu dañu koy jël yóbbu ko ci entretien routier loolu aussi loi bi wax na ko gën leer donc loi bi bu jàllee nag dafay am ay décret d'application décret d'application yooyu ñoom ñooy wax nag fonds boobu particulièrement taxe bi nga xam ne moom la ñu tuddee taxe d'usage de la route nan lañ koy collecter fan lay jaar nan lay ñëwee ci FERA ba nga xam ne FERA dina ko mën a jëfandikoo may profiter ci occasion pour wax ne FERA ak AGEROUTE nekkuñu en conflit AGEROUTE dafay exécuter ay travaux routiers. moom euh, dañ ko jox délégation par le gouvernement pour mu taxawal ministère bi ci travaux yi nga xam ne travaux routiers la ñuy def yaa xam travaux euh, d' entretien périodique la yaa xam travaux euh, de réhabilitation yaa xam travaux de construction yaa xam travaux de reconstruction loolu AGEROUTE moo ko moom FERA amul benn pouvoir d' exécution de travaux routiers FERA moom collecter mobiliser ressources indil ko AGEROUTE à travers PERA financer entretien routier bi AGEROUTE ay appel d' ci ay marché am ay entreprises sénégalaises yoo xam ne ñoo ko exécuté donc ñaari entreprises amul benn problème ñun ñooy ànd liggéeyandoo li nga xam ne mooy coppite gu bees nga xam ne am na tey ci environnement infrastructure bi. wax tamit entretien bi di euh, tali yi nga mu ñëwaat ci euh, di euh, règlement 14 bi UEMOA. tali yi nag comme wax naa ko léegi ñu ngi koy defar defar nañ tali yu am solo defar nañ environ 2000 kilomètres de route revêtue ci espace su 6 ans bi nga xam ne président Macky Sall depuis 2012 jël na nguur gi. six mille deux mille kilomètres yooyu boo ko yokkee léegi ci quatre mille quatre vingt et un kilomètres yi ñu fekk mooy kon léegi am nañu six mille kilomètres route yoo xam ne ay ay route yu ñu bitumé la loolu lu am solo la mooy tiers bi yokk nañ ko déjà ci suñu patrimoine routier bitumé mu des autoroute yi nga xam ne defar nañ ko wax naa léegi bi ñuy ñëw 2012 32 kilomètres autoroute la ñu fekk yokk nañ 193 kilomètres autoroute tey Sénégal mu ngi am 281 kilomètres autoroute projet autoroute yi nga xam ne ñu ngi koy lijjanti. te loolu xam naa ne incha allah deux mille vingt et un ci am ay tegtal yu leer donc def nañu ay ay liggéey yu am solo ci ci tali liggéey yooyu na dafa war a ànd ak entretien moom la ñuy commencé di indi nii pour teg jéego pour entretien renforcer entretien bi waaye dafa am yeneen jéego mooy lu ñu liggéey liggéey tali liggéey ko entretien mais ba pare nag euh, bu ñu ko paree nag ñu yàqaat tali bi te tali li koy yàq moom ñi koy utiliser la maanaam camion poids lourds yi bu ñu respecté wul charge à l'essieu dañuy yàq tali bi te nag waruñu nag di dépense euh, ci engagement yu betti pour defar tali defaat engagement yu metti pour entretenir tali ba pare ca côté ba ñu am ay oto yoo xam ne dañuy yàq tali loolu état bi du ko d'accord ñi yor oto yi sax waruñu ko d'accord mais usagers yi aussi duñ ko d'accord population Sénégal aussi duñ ko d'accord parce que tali yi ci seen budget lañ koy defar donc loolu moo tax règlement 14 bi nga xam ne jël nañ ko di ko appliquer de manière graduelle ci étendue euh, état wu e yi day jàpp nañu ne incha allah mars 2021 la ñuy indi nag règlement application intégrale règlement 14 loolu nag ñu ngi wax ñëpp ñu waajal ko euh, pro transporteurs yi nañ ko waajal gestionnaire de plateforme yi nañ ko waajal mooy fi ñuy chargé camions yi parce que dinañu yokk euh, poste de pesage yi ba nga xam ne benn camion dootul mën a euh, violer charte boobu di yàq sur ay tali. Ah, loolu moom ñu ngi koy commencé di ko def am nañu ñu ngi ciy waxtaanal defar nañu cadre logique. bi nga xam ne moom la ñuy def renouvellement parc automobile Sénégal euh, am na ñu ay critères yoo xam ne fixé nañ ko maanaam oto yi ñu bëgg mooy oto yu baax yu mucc ayib comme ni ko président di waxee bi may defar euh, TR indi train bi nga xam ne mooy dernière génération en de modernité et de technologie bi may indi compagnie Sénégal dama indi compagnie bu baax boo xam ne ay avions yu mucc ayib génération kon ñun tamit bu ñuy def renouvellement dañu war a indi ay oto yu baax yu mucc ayib euh, oto yoo xam ne dañuy dëgër. oto yoo xam ne marque internationale lay nekk mais oto yoo xam ne aussi dañ ci war a profiter ci renouvellement bi pour jeter base nga li ma wax léegi industrialisation automobile Sénégal donc tey projet boobu nag du marché boo xam ne Sénégal daf ko ubbi jox ko ku ko neex ku mu neex nga bokk ci programme de renouvellement bi en tant que fournisseur de véhicules mais nga respecter charte yi respecter service après vente respecté garantie bi nga xam ne war nga ko am ak oto yi maanaam minimum garantie trois ans respecté garantie cinq ans ci yenn organes yi nga xam c'est des organes vitaux pour un véhicule robuste loolu daal bu ñu ko sàmmante wax dëgg yàlla ku ci nekk boo mënee respecté critères yooyu mun ko indi mais respecté aussi prix may wax ne prix bi du quarante cinq millions du trente millions du soixante millions prix minibus yi nga xam ne indi nañ ko quinze places pour remplacer les sept places pour l'instant seize millions neuf cent mille francs CFA hors taxe bu ñu exonéré oto bi benn dërëm du ci yokk buñ ko exonéré wul nag dina amaat tuuti li nga xam ne mooy droit de douane yi nga xam ne la oto bi di fay jërëjëf Amadou Moustapha Dieng doon dalal ki nga xam ne moo di Ahmed Oumar Youm di ministre des infrastructures des transports et du désenclavement mu doon dellu si rek ci projet de loi boobu nga xam ne dañu ko signé jëm ci euh, création fonds d'entretien routier autonome mu di FERA bu ko defee ñu àndandoo ak Adjaratou Ndeye Marième Ndiaye mu indil ñu li gën a fës ci yéenekaay tey jii ci àllarba ji ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre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 dara mu neex saa mu may naan sama boisson punch ay goût yu bees neex lool ak parfum yu bari yi orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi cosaanoo moo mën ci xew seen boisson punch moo leen di may li ci yéenekaay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 HLM Banok Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 macha allah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire. les établissements mbay et frères seen boisson punch ndox mu sell mii di waalo ak SPEM Sénégal premier équipement et machine ñoo leen di may seen revue de presse Ndeye Mariam Ndiaye asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ndaw yi jël gaal yi ngir dem ca bitim réew fan yi yëpp ñu ne mekku ne dafa mel ni ne dafa taqarnaase Ousmane Sonko daal di ci fësal ay kàddoom di joxoñ baaraamu tuuma njiitu réewum Sénégal di Macky Sall mi nga xam ne nag moom moo ni jiitee téolikaay bii di Sud Quotidien mi gi ñee xamal ne démb Ousmane Sonko dafa daal di fësal benn vidéo ci biir page Facebook am muy daal di xamal kii di Macky Sall ne la mu digoon askanu réewum Sénégal yëpp gisuñu ci lenn loolu nag moo tax ba ndaw yi di fëx di dem seen yoon mu daal di fàttali ne njiitu réew mi moom moo fi waxoon ne dina am cent mille emplois ñu ne déet sax mu ne cent cinquante mille emplois par an te nag nee na ndaw yi daal gisuguñ ci benn ba léegi rax ci dolli ba ñu koy ndëkk tabb ci atum 2012 mu waxoon ne dina fi tabax ay logements sociaux ñaareelu mandat mu daal di xam ne ne dina am cent mille logements sociaux nee na nag dikk yooyu yëpp nga xam ne nag moom la dikk askanu réewum Sénégal ba léegi de kenn gisu ci lenn rax ci dolli yenn ci ay kuréel yoo xam ne mu ngi ko fiy teg ñu ràññee bu ci mel ni FONSIS FIS FONGIP ANPEJ DER PRODAC nee na yooyu koppar gu tàkku lañ ciy dugal te pourtant di taxul ndaw yi nag ñu ngay jël gaal yi di dem ca bitim réew moom mu kon di Ousmane Sonko culikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne daal di nay joxuñ baaraamu tuuma njiitu réewum Sénégal di Macky Sall di xamle ne na mu yoree réew mi baaxul darawaay loolu nag moom moo tax ba ndaw yi amatuñu benn yaakaar fi nga xam ne nag moom mooy ci biir réew mi kon moom la mu gis moom mooy ne Macky dafa war a sax démissionner culikaay bii di las di ñu jottali ay kàddu Ousmane Sonko ndaxte moom it daal di nay joxoñ baaraamu tuuma njiitu réew mi ci na muy caxat caxatee nag am réew réewum Sénégal nee na nag suñu ay ressources Macky Sall daf ko daal di jox ñi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ci bitim réew ndaw yi gisatuñu seen bopp nag wante nag nee na su fekkente ne xëy amu fii amuñu benn yaakaar tamit fii ci biir Sénégal loolu warul tax nag ndaw yi di jël gaal yi di dem ca bitim réew moom mu gis ne mun nañoo toog fii ci biir réew mi daal di fiy tekki li Quotidien moom daal di ne gis ne loolu moom moo tax ba mbirum mbëkk mi daal daal di gën a tar te it ñu gis sax ne saa su ne am na benn gaal bu fees dell kii nit yoo xam ne day jéem a dem ba fële nga xam ne de euh, moom mooy ca bitim réew démb sax culikaay bi di li Quotidien di ñu xamal ne benn gaal boo xam ne am na ci lu tolloog ñaar téeméeri ndaw yu ci nekkoon daal moom mujjee wër bay bëgg a dee xamuñu woon yoon bi ñu delluwaat foofu nga xam ne moom mooy ci diwaanu Ndar culikaay bi di Les Échos mu koy dëggal ndaxte mi ngi ñuy xamal ne gaal boobu daal dinay def ci lu tolloog juróom-ñeenti fukki fan nag ci géej gi dafa mel ni ne ñu ko doon dawal xamuñu woon yoon bi ci noonu sax la ñu jëlee décision ne dañuy dem fële nga xam ne moom mooy ci diwaanu Ndar autolikaay bii di libération nañuy ñàkk seen bakken tamit ci géej gi bëre nañu ndaxte am na benn gaal goo xam ne daal dafa feesoon dell gaal boobu dafa daal di këpp mu am ci lu weesu téeméeri passager yoo xam ne sax dañoo mujjee diik te barke de moo njaay tamit ñu ngi doon xamle ne am na benn gaal boo xam ne dafa am ab lakk-lakk ga fa nemmeeku mu tamit ñu bëri ñu si ñàkk seen bakken wante loolu yëpp taxul ndax ndaxte ba léegi ndaw yi moom seen xel ak seen xalaat yëpp ma nga ca dem ca bitim réew te nag pare nañu sax ngir ñàkk ci seen bakken loolu sax moom moo tax ba am nañu bokk ci biir gouvernement bi ñoom la ñu gis moom mooy ne ñii nga xam ne tey jii de ñoom ñooy yóbbu ndaw yi bu ñu leen tegee loxo daal nañu leen daan daan gu métti goo xam ne daal day tax ba dootuñ ko defati wante dafa mel ni ne su fekkente ne Mansour Faye ak Néné Fatoumata Tall ñoom ànd nañu nag ci wàll gi ni mel jori gu ñu dénk wàllu bi fii ci mim réew di Aly Ngouille Ndiaye moom dafa ne ala mukk taxaw seetlu ba faaw suñu yi nag ne ak jafe-jafe yu tari nga xam ne moom la parti bi di jànkonteel loolu de moom moo ko yóbbu tey ji fa mu nekkee ginnaaw yi nga xam ne nag kii di Emmanuel Macron daal dina koy fësal jëmale ko nag ci diine l'islam ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam culikaay bii di Dakar Times mi ngi ñuy xamal ne fu mu nekk di nag ñu bëri ñoo ngi koy ŋàññ wante fii ci biir Sénégal de ñi koy ŋàññ nag bëreewul li ñu nemmeeku daal moom mooy ne ONG Jamra moom démb daal dina ŋàññ li ni mel ba déposé sax ab lettre de protestation ca ambassade bu France fii ci biir Sénégal wante colikaay wante ci biir colikaay bi di Les Échos ñu ngi ñuy xamal ni kuréel bii di Xudamul Xaadim te nekk ci diwaanu Touba ñoom daal dinañuy naqarlu kàddu yi nga xam ne nag kii di Emmanuel Macron moom moo ko daal di fësal léegi sax lu ñu bëgg moom mooy ne fii ci biir Sénégal comme nañu koy defee ci yeneen réew bu ñu jëndee ci benn mbir boo xam ne daal Sénégal dafay jógee ci réewum France jeexale ko wàllu lamb ak colikaay bii di sunu lamb mi ngi ñee ni xam ne daf koy am jëmale ko ci ñeneen ñu bokk ci biir bi ndaxte xam ngeen ne bureau bu CNG bi ñoom seen mandat dina jeex ci fanweeri fan ak benn ci weeru octobre kan moo nar a ki nga xam ne nag moom mooy Alioune Sarr dafa mel ni nag ne joriñ gii di Matar Ba moom mu ngi ci xalaat bu baax a baax ndaxte daal dinay dalal ku ci mel ni Gaston Meng Pape Abdou Fall professeur Djibril Seck Khady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 dara gën a neex saa bu may naan sama boisson punch ay goût yu neex lool ak parfum yu bari yi orange ananas pomme mangue coco limonade ak cola punch cafka bii fi cosaanoo moo mën ci xew seen boisson punch moo leen may lii ci yéene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 Kourumba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 macha allah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire les établissements mbay et frères. seen boisson punch ndox mu sell mi di waalo ak. SPEM Sénégal premier équipement et machine. ñoo leen doon may seen revue de presse. jëf jërëjëf euh, Adjaratou Ndeye Marieme Ndiaye bu ko defee ñu wéy rek ci nga xam ne moo di Sud Matin. Lorsque les autres visent Dakar, nous, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là sur Sud FM. Sud FM seen rajo ñu wéy ni ñu koy defee saa su ne ànd ak Marie Rosalie Ndiaye mu ñëw ci li nga xam ne rek moo di info santé.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 asalaamaaleykum mbokk déglukat yi ca hôpitalu xale yi di Albert Royer nekk ca hôpital Fann li ñu gis moo di consultation yi tàmbale nañu doxee nañu doon doxee laata mbas mi ci ayu bés yi ñu génn la ko waral bokk na ci di wàllante gi wàññeeku ci feebar bi di coronavirus ba tax bu ñu sukkandikoo ci professeur Idrissa Demba Ba nekk point focal Covid 19 bu hôpital ba consultation yi jóge nañu ci ñeent fukk bés bu nekk ba delluwaat ci ñetti téeméer bés bu nekk ñu teewlu ko ci micro xabsa Elimane Wane. naam amoon na beneen période bi nga xamante ni bu ñu tëjoon lépp xam nga tëjoon nañu euh, kii euh, jëm di euh, dikk ak dem yi si diggante dëkk yooyu yëpp dañ ko arrêté woon loolu taxoon ne malade yi dañu ñemete woon génne ak couvre-feu bi tamit ñëpp ñi dañoo ragaloon bu baax Covid bi mais léegi wax nañ ku nekk boo amee sa bu vous ñëwal sa rendez-vous boo amee urgence heure bu mu mënti doon période bu mu mënti doon samedi dimanche wala jour bu mu mënti doon. ñëwal hôpital boo fa ñëwee di nga fa fekk ay docteurs yu xarañ yi nga xamante loolu mooy seen liggéey mais aussi si hôpitaux yi am na dispositif de lavage des mains am na dispositif ñu jéem respecter distanciation am na dispositif aussi pour que ñu mën a filtrer maladie ku ñëw jëlal sa température ñu poser lay question en tout cas feebar xale lu ko mënta dal ak feebar mënta doon nit ñi nañ bañ ragaloo dem hôpital parce que suñu hospitalisation yi wàññeegul woon donc loolu lan la doon firnde mooy feebar yaa ngi yaa ngi fi yeneen feebar yi ak aussi consultation wàññeeku na mais seetlu nañu fan yi quand même malades yi ñoo ngi ñëw bu baax waaw donc euh, non laa laa moom parce que semaine passée am na jusqu'à t cent enfants par jour de consultation loolu mooy suñu moyen de consultation suñu moyen de consultation deux cent cinquante ba trois cent wàcc na ak Covid ba ay quarante bay trente mais léegi je pense que activité yëpp euh, reprendre nañu wax. ci jamono ji ñu ngi nemmeeku ci Sénégal ay feebar yoo xam ne bu ñu ko gàttanduwul mën nañu woy ba doon épidémie bokk na yiñ ci seetlu euh, feebar bu ñu duppee dengue ca diwaanu Thiès ak Kaffrine fièvre jaune ca Touba amit ab cas bu soxal feebar bu ñu duppee euh, fièvre hémorragique Crimée Congo ak fièvre de la vallée du Rift ca Fatick am na it benn feebar boo xam ne mu law ci gi ca diwaanu Ndar lu ni mel tax ba ñuy laaj ñu renforcer surveillance épidémiologique bi ci fépp fu ñuy fajee fexe it ba di gaaw a nemmeeku feebar yooyu nga xam ne bu ñu ko teelul saytu wàllante gi mën na ëpp loxo lu ni mel jóge ci ministère de la santé et de l'action sociale mbokk déglukat yi fii la ñu yem ak yéen di leen ñaanal bésu jàmm.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 de l'info. Sud FM en mode majeur, les temps changent et le monde bouge. Sud FM. Les temps changent et le monde bouge. Sud FM avec. Sud FM Scène Radio, l'inséparable de l'info. Là où vous êtes, Sud FM vous y trouve. Sud FM en mode majeur. Les matins sur Sud FM Scène Radio avec la voix bonheur de Siste qui vous dit l'info, c'est ici. Ça a été un plaisir de vous servir. Merci encore une fois de nous avoir reçus. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Mais en attendant, à 9h, retrouvez la rédaction pour un bref survol de l'actualité. Juste après, vous aurez euh, Nicolas dans Ndekili. Merci à Lune Badara Socé qui a assuré la mise en onde de Sud Matin. Maria Rebez, j'étais devant ce micro. Un plaisir de vous servir. Merci à tous et à toutes. on se retrouve demain, 6h30, sur Sud FM. ngi déglu Sud FM rajo bi wër àdduna Dakar Dakar. yéen ngi déglu Sud FM rajo bi wër Times bi nga xamee ne liggéeyu pon wu yoof bi li ci des bareetul pont boobu nga xam ne dafa bokk ci programme fukk ak ñetti pont yi nga xam ne daañu ko defar ci dakaar